الأمية جاهل الباغون أني في إبائي سابق ما عشت يوما للدنيا حاجري عزي حاجري عزي حاجري عزي ومقلاعي إبائي عاصب الهما عاصب الهما عاصب الهامات مقداما جليا حاجري عزي بسم الله الرحمن الرحيم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 noppalaat leen bu baax ndokkeel leen nuyu leen siyaare leen ak di leen tatagal di amaan mbégte ci dellu siwaat ak yéen ci jotaay bi di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñaan suñ borom mu nangul ñu suñu jaamu yàlla yi nga xam ne jot nañ koo def ci ay bis gi yëpp ndokkeel leen ci weekend bi nga xam ne ci lañ génn jaajëfalaat leen bu baax a baax ñaan suñ borom mu defal ñu taw tawféex ci ay bis gi ñuy daloo nii fa naa bi jihaadin jaajëfalaat bu baax a baax soppe yi ci defem yëpp rawat na ñuy déglu jotaay yi diine yi rawatina auditeurs yi an nuur yi nga xamante ne jamono ji ñoom ñëpp ñu ngi ñuy bàyyi xel ci suba gi fas yéenee def jotaay bi mu nekk aw wéttal ci ñoom dellu seeti nañ ngir fas leen a wéttali asalaamualeykum noonu la ñu nuyoo soppe moo xam ñi ne ci biir réew mi la moo xam ñi nekk bitim réew rawatina ni si defem seen rajo yi fasantikoo ci gox yeeg gox-goxaan yi yéen ñëpp ñoo ngi leen di wax asalaamualeykum big lool ci ñi nga xam ne jamono jii dañuy lëkkale jotaay bi ba fañ nekk ca région yaak euh, fu man mën di doon ñi di ñu bàyyi xel foofa asalaamualeykum noonu la nuyoo mboolem ñi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew te di ñu déglu ci internet bi di leen bàyyi xel baax di leen nuyu te di leen siyaare Pape Mor Diaw Habibi ahlan wa sahlan asalaamualeykum. ñoo ñooy ñu nekk ca Asie suñ mbokk ya nekk ca Europe yëpp ñoo ngi leen di nuyu moo xam ñi ca Italie la ak France asalaamualeykum Alaaji Dooro Silla noonu la ñu nuyoo ñi nga xamante ne ñoo ñuy dégloo ca Allemagne aji Asmalik Gueye asalaamualeykum asalaamualeykum suñ mbokk Pape Ndiogu Sall تبعث الصوت إلى الأسد فهيا أين فيكم عاشق الخلد وأين بادل الروح إلى المجد رضيا هذه القدس soxna Ndeye Camara moo nekk Amérique asalaamualeykum asalaamualeykum soxna Ndeye Khady Diagne soxna Khady Bah moo nekk nekk fële ca Italie asalaamualeykum kayfa yusqa sha'buna dhulman mariran wa yumaanu ash-sha'bu shaykhan wa sabiyyan mbokk yi bàyyi xel am nuur dellu si waat nañ ci ak yéen jaajëfal leen bu baax a baax a baax ñëw ci ay bis gi nga xamante ne mooy ay bis gu mujj gi ci an nuur insha allahu taala bég bu baax a baax ci ni ngeen ñu ci toppee bañ ko dooree ak léegi waaye jaajëfalaat leen bu baax a baax ci mboolem waxtaan yi nga xam ne jot na fee jaar te ngeen ay tomb yu yees pex ci ay bis gi nga xam ne ci lañu nekk nii ginnaaw bi ñu ñaanee suñu borom subhaanahu wa taala mu nangul ñu suñu koor ñaan ko itam mu jéggal ñu suñuy bàkkaar defal ñu ko ci xaaj bi nga xam ne moom lañ jeexal defal ñu ak mucc ci sawara ci xaaj bi nga xam ne ci la ñu dugg nii li ñu baaxoo tëral jotaay bi liñ koy tëralee nes tuuti daañu sadd aw waxtaan wu gàtt ubbee li nga xam ne mooy jotaay bi buñ ca noppee dalal suñu gan waxtaan ak moom buñ demee ba 11h jot ñu tënk xibaar yi bitim réew yeeg yi nga xam ne moo ci aju dellu siwaat ak yéen ci téléphone bi ci xaaju fàttalikoo siyaar lay doon buñ demee ba midi moyale kaar jot ñu yëkkati jotaay bi jotaay bi noonu rek la fas yéenee mbokk yi ñoo ngi leen ciy jaajëfal bu baax a baax siyaarewaat ñëpp tëdd leen jaajëfal borom mu boole ñu defal tawféex bañ àggale ko ci jàmm حجري عزي ومقلاعي هدائي jaajëfalaat leen bu baax a baax ndokkeel leen ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci jotaay bi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel rawatina ñi nekk ci seen i bureau jamono ji nga xam ne ci la ñuy ubbee jotaay bi wala ñi nga xam ne ñi ngi ci yoon wi di xëy te àggaguñu ñi nga xam ne ñoo nekk ci seen i oto ne ci yoon wi moo xam Dakar dem dikk yi la wala car rapide yi la wala njeganjaay yi la wala tata yi la ñi nga xam ne ñooy taxi yi ak taximaan yi ak ñi dugg ci biir taxi yi yéen ñëpp asalaamaaleykum mbokk yi ci fàtte wuñ leen jotaay bi seen bos la ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare baax a baax képp koo xam ne ñëw na ca marta baax lu ko fa mën a indi jamono ji bu dee mi ngi ñuy bàyyi xel asalaamaaleykum doole ko ci suñ mbokki commerçant yi rawatina waa marté ti leen ak li ko war ñoom ñëpp asalaamaaleykum suñ mbokki téyeer yi fàtte wuñ leen ministre mitaal yi yéeg ministre bois yi suñ mbokki yëpp ñoo ngi leen di wax asalaamaaleykum وترى الموتى وترى الموتى leen bu baax a baax takkee noonu nuyoo bi teg ko sëpp ko nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk ci bureau yi yëpp te di leen siyaare bu baax a baax xam naa ne ku ko toppe noonu noonu rek lay demee incha allah bu ñu demee ba ci biir jotaay bi ci suñu kanam danañu wéyal nuyoo yi ni nga xamante ne noonu lañ ko baaxoo defee waaye tey suñu waxtaan ci xaaj bu njëkk bi nga xamante ne moom lañ daan laytaayale jotaay bi ñi ngi laytaayale lu jëm ci wàllu sarax weeru koor euh, ci boppam lañ daan def jël benn tomb dugalante ko ak weeru koor gi wax ne relation boo xam ne koor am na ko ak tomb boobu tey ñu bëgg a xool ni nga xamante ne noonu la koor demee ak ak sarax sarax maanaam saraxe euh, buñ koy wax dañuy wax ne mm, ab sarax moom mooy li nga xam ne nit ki da koy génnee di ko joxe waaye jublu ci ngërëmal boroomam subhaanahu wa taala li nga xam ne nit ki daf koy génnee di ko joxe di ci jublu ngërëmal boroomam subhaanahu wa taala loolu la ñuy wax ne mooy ab sarax asadaqa ala wajhiha innama yaxsidu biha ibtiqaa mardatillah loolu mooy sarax nit ki di ko def ci alalam léeg ñu ne wax ju neex sarax la léeg ñu ne xool sa moroomum jullit sarax la fekk luy lore ci aw yoon nga àndale ko sarax la waaye jubluwaay bi dëgg-dëgg nag buñ ko waxee muy sadaqa mooy kon lool la doon loo xamante ne lu yaatu la lu bari tiyaaba la lu am solo la lu lislaam soññee ba tàyyi la ndax li ci nekk ci wàllu dimbalante dafa bari lool weeru koor di weeru dimbalante gannaaw bi mu nekkee weeru koor ba noppi ndax waxoon naa ne dimbalante gi dafa bokk ci li koy firndeel liñ ciy tudd joxe dafa bari lool ci biir koor yoo xam ne yàlla da ko cee gàll joxeel joxeel joxeel mu mel ne danaan la tey fi mu ne ki nga xam ne dafa euh, dog ci weeru koor euh, te tey ko wala mu yeexoon a fay ba àpp ba dellu si wala mu dem ba tële mënta woor walla mu feebar mënta woor wala yu demee noonu yëpp da ko naan na nga joxe mu mel ne joxe gi mooy remplacer jaamu yàlla koor gi bu boobaa day wane ne kon joxe gi am na solo ki nga xam ne gàlluñ ko loolu nag muy woor ba noppi moom mën a compaat ci li ko yàlla wërsëgale nag di joxe te yàlla tax loolu beneen wàccuwaay la bu rëy rëy boo xam ne euh, dafa am aw yiwu mag a mag wum am ci koor gi kon sarax ci jëmmi boppam lu am solo la woon naka jekk rawatina nag ci jamono jii ñu nekk ki koy joxe lim ciy wut mooy ngërëmal borom subhaanahu wa taala nga xamante ne bi mu koy mooy tax kefe leneen du tax lu dul suñ borom subhaanahu wa taala du doon ne ki mu koy jox da koo neex du doon ne ki mu koy jox itam euh, maanaam da koo mere wala joxe gi day lu mënta ñàkk bu koy joxee da koy joxe muy lu jóge ci moom dem ci waa ji te yàlla tax nga xam ne bu ko ci waa ji sante xayrun bu ko ci waa ji santutit du tee moom mu mu joxaat ko ndax jubluwu ci cant gi la mu koy def yàllaa tax ba noppi da koy jox ba noppi bañ caateeg benn kàddu kon li ñuy wax sarax maanaam saraxe ak sadaqa ci weeru koor mbir mu rëy la mu màgg la sarax dafa mas a rëy dafa mas bari ay tiyaaba euh, mas a yaatu lool mën a fegal nit merum suñ borom subhaanahu wa taala man koo feral itam man koo fegal itam jafe-jafe ëllëg yowmal xiyaam mbiram mu màgg moomu nag ak lim doon rëy rëy ay may day feddali ko nag ci weeru koor maanaam weer wi dafa nekk weer woo xam ne lu waaye doon def ci weneen weer baax na waaye bu ko defee ci weer wii ñu fulal ko ko rawatina nag fan yi ñu nekk mbokk yi nga xam ni takk na ay bagaasam ci fukk yu mujj yi ba fi mu ne rangale na ko ci wëlisam moom koor mi ngi tàmbulee tàggoo olof di wax woor di wacc wala bis boo woor doo ko wooraat wala ay bis gu mujj gi nga xam ne ci lañu nekk bu tollee foofu nag def ci lu baax day gën a yokku day gën a rëy kon mbokk yi ku ci gaawantuwul woon weesoo gut na gën a gaawantu ci dab dabaatal dab dabaatal mi ngi dem de kenn xamut kan la fi fekkaat buy ñëwaat ak kan la fi du fekk occasion bu rëy rëy kon daal di doon boo xam ne eh, day romb nit ñi dem ndeysaan buy ñëwaat yàlla na nañu fekk te fekkaat ñu ak wér guñ ko mën a mànge bokk ci ñi nga xam ne yàlla dañuy nangul suñ borom yërëme na ci ñu bari ndax fukk yu njëkk yépp yërmande la woon incha allah yërëme na ci ñu baree baree baree baree bari yërëm ci ñu bari jéggal ci ñu bari jéggal na ci ñu bari suturaal na ci ñu bari ji ñu nekk nag di nag euh, fan yi dugal aljana yi nga xam ne day sëq rek di licencé waaw sëq rek di di tàppeel euh, euh, admet accepté waaw dugg leen <laughs> rek waaw moom tas ci la nekk léeg mu defal ko koo xam ne sax dañuy wax ne malaaka yi dañ ko naan ah waaw yàlla kii moom xanaa dañ koo jaawale kii doy na waar de kii de moom ëppoon naa boole ci ñi ngay jéggal kii li mu fi def lépp kii ëppoon naa boole ci ñi ngay jéggal suñ borom ne leen eh, c'est pas grave amul problème waaw amul problème man xam naa ko comprendre naa bàyyi leen rek ma dugal waaw daal di tàppeel mu jàll mi na naar kon mbokk yi bu kenn gàllankoor kenn fukki fan yi liñ ciy jàngee da caa bokk boyal nit ñi nag boyal nit ñi yow mi nga xam ne ay jafe-jafe nga am ak nit ki ba tax mbedd mi xat ci moom pénc mi xat ci moom fu bari mënatu faa teg tànkam ndax sa digganteeg moom lu ngeen séq wàcceel sa loxo nag waaw yolomalal tuuti nag bu ko defee mu mën a mu mën a féex bu dee bor la boo ko mënee may may ko ko bu dee lu aw ñëgg-ñëgg wu nekkoon seen diggante la boo ko mënee jéggal jéggal ko ko yooyu yëpp na doon loo xam ne day tax nga roy suñ borom subhaanahu wa taala ci taxawaay bu rëy boobu nga xam ne mi ngi koy amee ci fukki fan yi nga xam ne moo mujj ci weeru koor donte wax jooju borom xam-xam yi dañuy jam xadis boobu nga xam dañ naan fukki fan yi njëkk yi yërmande la yi ci digg bi njéggal la ya ca topp goreel ci sawara la waaye ala kulaalin bu dee ci système mu jàngale la ak soññee ñu jëfandikoo kon kon ci soññee même su fekkee dañuy bañ a wax ne ab xadis la kon ñu wax ne rek manees na cee jànge yërmande manees na cee jànge ak euh, goreel ci sawara manees na cee jàngee ak njéggal sarax yaatu lool bari lool aw yiw di tax nit ki tedd day tax nit ki tedd ba noppi day yokk alalam day yokk personnalité def ko ci jamono ji ñu toll day tax ñu gën koo fulal ay jëfam te it day dimbali ki nga koy jox day dimbali ki nga koy jox te dimbali sa mbokkum jullit li ci ne ci tiyaaba kenn daa xamul num toll rawatina nag ki weeru koor am na koo xamante ne nii euh, liñ ko jox noonu buñ ko ko joxul woon koor gi metti lool ci moom dafa mel ne buñ seetloo ci koor lool da ciy feeñ lool donte laajkat yi danañ yokku waaye joxekat yi danañ yokku ndax yëg nañ ni joxe gi dafa am solo te ki nar a joxe te jaamu yàlla tax du jéppi ay laajkat yu bari ndax dañoo wax ne joxeel li nga man li nga mënul nag nga bàyyi te boo joxee ba noppi nga néewal say wax ndax xawlun maxruufun wa maxfiratun xayrun min sadaqatin yatbauha xasa waaw wax ju rafet ak jëllale moo gënal suñ borom Euh, sarax boo xamante ne la ca topp rek mooy wax ju ñaaw saraxe ba noppi teg ci ay kàddu yoo xamante ne ku dégg ne accam ndax kàddu yu rëy loolu baaxut loolu baaxut koor mënta ñàkk am ay njuumte léeg-léeg yu ci nit di def jaamu yàlla gu mu mën di doon wala ay wàññen xëy na nag ki nga xam ne mi ngi woor di doxe noonu sarax bi muy génnee ñëw ngir fajal ko euh, gàkk-gàkk yooyu am ci biir rawatina nag Euh, buy joxe sakaatul fitre muy muddum koor mi nga xam ne ci fan yi di ñëw tuuti rek ñu joxe ko mu ñëw waral laabal koor gi ci laxu laabal ko ci fomi laabal ko ci wax yi nga doon juum di ko wax ak yu demee noonu yépp bu ko defee sarax bi day ñëw doon loo xam ne daf koy mottali am na benn xadis boo xam ne imaam albani wéral na ko ca jaame am ba boo demee sax defe naa mooy doon hadisu 21 23 dafay wax ne inna fil jannati euh, xurfan yaraa zaahiraha min baatiniha wa baatiniha min saa'iriha aaddaha allahu liman alaan alkalaam wa at'ama altaam wa taabi'u alsiyaam wa salla bi leyli wa naasu niyaam nee na suñu borom subhaanahu wa am na benn appartement bu mu am ci aljanna boo xamante ne ay weer lañ ko defare loolu rek la bëgg a wax mooy boo mooy boo nekkee ci biir da ngay gis ci bitti maanaam dafa dafa rafet waaw dafa dafa dafa dafa dafa jéggi dayoo ci ab taar ñu ne ñañ ko waajalal mooy ñi nga xam ne dañuy wax ak ndànk nit ñi seeni wax dafa teey ñu ko ñagas ay wax léeg la ngis ko xam dafa dëgër kàddu waaw bu boo ko nuyu woon bu lay fay sax nga tiit waaw boo ko ne woon salaamaaleykum bu naan la salaam rek ton bi mu la koy waxee kenn xamul nu mu toll bu la doon wax may ma ma jàll rek eh, kenn xamul nan la koy waxee kàddoom dafa ñagas léeg mu am koo xam ne peut de du wax ne da duñ wax ne dafa ñàkk kersa duñ wax ne dafa nàngam waaye kàddoom ci boppam mooy kàddu gu ñagas a ñagas a loolu baaxut ay ay wax day teey nit ki di wax ndànk ak nit ñi di maslaa ak ñoom ña nga xam ne nag dañuy wax ak nit ñi wax ju nooy am nañ ab cër ca appartement boobee ak ñi nga xam ne nag dañuy joxe ñam wa mu taam dañuy joxe ñam joxe ñam yekkale invité a xarit baax na yooyu yëpp ci xeeti joxe ñam yi la bokk jël ci sa alal jox nit ngir mu dépensoo ji joxe ñam la dimbule yooyu yëpp ba ci sarax bi ñuy waxtaane ak topp weeru koor gi ak di julli guddi fekk nit ñaa ngi nelaw di julli guddi fekk nit ñaa ngi nelaw jamono ji ñu nekk jamonoy julli guddi la jamono yëpp a ko doonoon waaye rawatina nag fukki fan yi nga xam ne moo mujj ci weeru koor nit ñi di def xiyaamu lii julli dem ci jàkk ya di tari alquranul karim di ko taxawe naafila baax na lool baax na lool ci ki mu gënee nag mooy ki nga xam ne yorut liggéeyu jàmbur bu mu xëy war a defi waaye mbokk yi buñ dégg ne baax na mukk ba tax nga engagé wu ca bureau ba liggéey boo war a liggéey signé ko am heure boo war a xëy heure boo war a wàcc nga ne yooyu da dem defi xiyaamu lay li ba tax waxtu wi nga waroon a xëy si xëy si woo ko ñëw ci bureau bi di nelaw ba li nga waxante woon ak eh, sa njaati gi defoo ko bu boobaa lislaam bëggewu ko noonu l'islam bëggewu ko noonu de ndax matale loola àq la yoo xamante ne nii naafila la farata la ci yow lii nag moom naa nawaafil la ci yow kon def ci li nga man boo gëmmantoo nga dem tëdd waajal ko bu subaa nga xëy si bu ko defee jàmm na ñooy ala kulli alin julli guddi baax na tabe gi ñu waxee nag maanaam sarax bi ñu waxee nag ci dëgg-dëgg mooy tabe te yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañoo waxoon ne mm, ku tabe la waaye nag rawatina ci weeru koor rawatina ci weeru koor ajwadu naas wa ajwadu maa yakunu fi ramadan weeru koor moom leneen la moom yonent bi alayhi salaatu jibril ñëw di nafaraat ak moom alxuraanul karim ci guddi gu ne waaye yonent bi tabe tabee tabee tabee ba mel ne ngelaw lu ne ci ay loxoom mu joxe ko lu ne ci ay loxoom mu joxe ko ndax di ko waajal ndax di ko waajal bég lool bég lool bég lool wax nañ ne suñ magi réew mi tey boo jëlee ko mel ne Serigne Touba dañoo wax ne euh, nit daan na ko laaj dara sax di bàyyi ba weeru koor jot ndax boo ko laajee lu weeru koor dana la ko jox waaye boo ko laajee ci weeru koor dana la ko jox ba ful ko ndax weeru koor moom dañuy joxe rek mag ñi dañoo xamoon lan mooy koor yëg yiw wi ci nekk ci lu ci waaye def ñu fulal la ko nga xam ne boo waroon a may waa ji cinq mille ci lu dul koor weeru koor gi boo ko mayee bu doon bee dix mille lañ la koy fay bii tey boo ko mayee ñu fay la ko cent mille yiw wa kon loolu rëy na lool te yiw wi dañoo àggagut fañ koy soxlaa moo tax nit man koo xeeb waaye buñ fa àggee rek naw ko buñ fa àggee rek yéem ko buñ ko àggee rek yé daal ko yéem sarax am na solo lool wax nañ ne ab sarax nit dina ci dugg aljanna e, soxnaam si ko togg dugg ci aljanna ki jël sarax ba dem joxe ji ko dugg aljanna maanaam tey waa ji bu fekkee aw ñam la saraxe soxna moo joxe dépense bi moom mi ko dépensé moom mi ko joxe am na ci e, këyit wu koy dugal aljanna incha allah am na billet d'entrée ah soxna si nga xam ne moo ko togg coonab togg ba tax na moom am na ca billet waaye biñ ko yekkee kañ ko jox ne ko demal demal demal jox ko mu dem joxe muy jànq ba wala muy doom ja wala muy ku mën a doon kooku am na ci biir aljanna te loola benn sarax rek la kon loolu rëy na loolu nag mën nga koo taawil ba indi ko ci ki nga xam ne dafa saraxe ci alalam maanaam dafa jël ci alalam joxe kam ko jox mu yóbbu kasaalika wala da koo yónnee ci yónneekaay yi wala nu mën a def waaye jël na ci aw jël na ci aw ñaqam xalaat kum yaakaar ne yayoo na ko ci wàllu ndimbal mu dimbali ko waaye nag te yàlla képp képp képp tax mbokk yi niñ góorgóorlu ba li ñuy joxe moo xam lu bari la moo xam lu néew la waaye ki koy joxe na ko joxe te yàlla tax na ko joxe te yàlla tax alquran tudd na sarax ay yoon wax naa la ci benn léegi xawlun maxruufun wa maxfiratun xayrun min sadaqatin yatbauha adda wallahu xaniyun xalim suñ borom nee na wax ju baax wax ju neex wax ju rafet wax ju rafet moom a gënal sarax boo xamante ne wax ju ñaaw da caa topp waaw sarax nit ki dimbali nit ki ba noppi xarab ko dimbali nit ki ba noppi xaxar ko lu ne nga teg ko ko ci ci ay kàddu nee na nga waxoon ko wax ju rafet te bañoon koo jox moo ma gënal dalaa woo sàkku ci yow ndimbal wala yow ci sa bopp yaa jekki-jekki jox ko ba noppi teg ci ay kàddu moo yóbbaale suñ suukari koor yi nga xamante ne loolu daa bokk ci li koy xañ tiyaaba ba dootu ci amati bu doon da ngaa gis ne da koo yittewoo nga jël ko dimbali ko jox ko pañe bi nga jënd wala suukar si nga jënd wala yaa xam lu mën di doon waaye da nga joxe ba noppi ne pat bañ caate kaddu genn kàddu baax na waaye joxe ko ba noppi nag teg ca ay kàddu nag teg ca ay kaddu su bokkun lii te ku ko joxewul ñu xas la moom kay nangam nangam maa koy jox de waaye dama koo gën ne moom gisuma ko ko jox wala mosuma koo jox wala nangam yaa xam kaddu yaa ngi cay teg wala defaluma ko de ndax ba ma fi ba léegi ab tànkam tegewu fi yaa ngi cay teg ay kàddu yoo xam ne mënoon naa ñàkk kaddu yooyu nag jëllale moo gënal suñu borom fuuf loolu nga xam ne moom ngay def moo tax suñu boroom dellu wax ci jeneen aaya ne ab sarax bu ngeen ko feeñalee bëgg naa bu ngeen ko nëbbee itam bëgg naa bu ngeen ko joxee nag te jox ko ñi nga xam ne ñoo ko yeyal muy fuqaraa looloo ma gënal in tubdu sadaqaati fa ni'ma hiya wa in tuxfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa fa huwa xayrun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'aatikum wallahu bima taamaluuna xabiir suñ borom nee na bu ngeen feeñalee sarax bëgg naa joxe ci pénc ma ñëpp di la gis nga yëg yëg ne yaa joxe lii yàlla nee na bëgg naa man naa tax rek su ma taxee rek bëgg naa waaw léegi nag boo ci jubloo nit ñi ne nit ñi nit ñi tagg la tagg wax xay na nga am ko ci xay na doo ko ci am waaye yàlla moom dencalu la dara ndax aw tagg nga ci jublu woon su fekkee nag yàllaa tax nga di ko def waaye nag contexte baa tax mu siiwe noonu wala yaa ko bëgg a def noonu sax mu siiw ndax nit ñi roy ci waaye yàlla doo nga tax ñu di ko def ndax tagg weeg bañ a tagg nga ci yemale yàlla nee bëgg naa su ngeen ko nëbbee nag ba noppi jox ko ñu ko yellool seetal loolu buñ ko nëbbee ba noppi jox ko ñi nga xam ne ñooy fuqaraa yi ñooy ñu ko soxla nee na loolu moom moo ma gënal fa huwa xayrun lakum moo gën ci yéen ndax bu boobaa sarax bi dana tax ñu baal leen seen i bàkkaar wallahu euh, dana tax ñu baal leen seen i bàkkaar wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima a xabiir suñ borom nee na sarax tiyaaba ji ci nekk dafa bari dafa rëy lool ku ko xamoon da joxe ba sonn ñu ne ko ah mu ne misaalum ñi nga xam ne dañuy dépenser seen alal ci yoonu yàlla bu ma la ko doon misaal dama naan la mi ngi mel ne baykat wi nga xam ne dafa ji wenn pepp la ji pepp wa génnee juróom gub gub wu ne am gub wu ne am téeméeri pepp te nee na loolu mooy li ma la mën a natt ci sam xel waaye mën naa koo ful num ma neexe ndax man e, ku yaatu laa ku xam laa kon ki nga xam ne day saraxe mu ngi mel ne koo xamante ne wenn fepp la jur fepp indi juróom-ñaar indi bu ne téeméer ñaata la e, e, mi ngi mel ne koo xam ne cinq cent francs la la saraxe cinq cent ba indil ko Euh, mën ngaa wax ne euh, maanaam trente cinq mille ci tiyaaba mu jural ko ko wala lu ko ëpp ndax suñ borom nee na maa koy ful lu ma neex kon bul xeeb li ngay joxe na yàlla tax ak lu mu tuuti tuuti tuuti na yàlla tax ak lu mu bari bari na yàlla tax parce que yàlla mooy ful am mbir moo koy ful nu mu ko neexee masalul ladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka masali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habba wallahu yudaa'ifu liman yasha wallahu waasi'un alim suñ borom nee na ñi nga xam ne dañuy saraxe moo xam ñi nga xam ne e, wala bokk ñi nga xam ne dañuy dëggalkat yu góor yi ak yu jigéen yi suñ borom nee na lebal leen yàlla lebal leen yàlla ñu ne ko yàlla nuñ lay lebale mu ne lebal leen ma fay lebal leen ma man dinaa leen fay fay gu rafet ba noppi dinaa leen fulal kon kuy sarax dafa mel ne dafay lebal suñ borom subhaanahu wa taala innal mu innal musaddiqina wal musaddiqaati wa axradu llaha xardan xasana yudaaf lahum wa lahum ajrun karim saraxee ngi noonu su ko defee nag kenn ku ne la nga am ngay saraxe wa in kaana soo usratin fa nasiratun illa maysara wa an tasaddaqu xayrun lakum in kuntum taalamun suñ borom na sarax mbokk yi digle na ko ba tàyyi soññee na ci ay yooyu ma jot a wax yépp day tegtale wàccuwaay yi nga xam ne moom la sarax am ak importance bi nga xam ne moom la ko suñu borom subhaanahu wa taala jox bokk na ci liñ ci jàngee ci wàllu sarax mu bokk ci e, wàccuwaay yu rëy yi nga xamante ne day day yar bakkan waaw day tëj bakkan bi day tënk seytaane day tënk saytaane bakkan dafa bari ay pexe waaw bakkan dafa bari ay pexe te dafa mën a tiital nit seytaane bari ay pexe te mën a dig nit ak ñàkk waaw bakkan moom li ngay joxe da ko du neex mu lànk ne la du doo ko ci def lii kat boo ko sakkanaloon def ko ci nangam def ko nangam mu jural la nangam moo gën nga jël ko rek saraxe ko nii saytaane moom dalay digloo dalay dig ak ñàkk ak saytaanu ya'iduhumul faqr seytaane moom dalay dig ak ñàkk naan la ah, nit ñi de ku leen jox ñoom ñëpp bu yàggee nga yelwaane ne ñoom bu ko jox waa ji da koy yàq rek doyewu ko dara wala mu ne ah waa ji moom jeexalu dar saytaane poro maanaam xeetu xeetu discours boobu la lay déey di la tayyeloo ci joxe bi di la tayyeloo ci joxe bi léegi nag ñaari yu fa nekk ci sa kanam mooy sa bakkan juuyool ak moom juuyool ak sa bakkan gis nga nit ki bëgg a mucc day juuyoo ak bakkanam waaw lum ne fëq bakkanam ne ko doo ko fi defee mu ne bakkan bi def dëgg def ba mu neex laa koy def ndax bi muy xiif bakkanam moom naan la bëgg waaye dafa juuyoog bakkanam bi nga xamante ne nii eh, dafa sonn bakkanam noppalu la bëgg waaye moo ne bakkan bi doo fi noppaloo damay jaamu yàlla mu jóg guddi bëgg a julli bakkanam moom nelaw la bëgg waaye mu ne bakkanam doo fi nelawee damay julli ji de lu lu mu song rek bakkanam safaan ba lay song moom waaye moom moo naan bakkan loolu nga song intéressé wu ma man safaan ba lay def moo tax ku bëgg mucc dañuy wax ne nanga nga juuyoo ak sa bakkan na nga juuyoo ak sa bakkan sarax baax na lool as sadaqa alal miskin sadaqa wa hiya ala si rahim isnataani sadaqa wa rahim saraxe baax na sarax koo xam ne dafa ñàkk nekk am miskin baax na sarax la sarax sa mbokk mu nekk am miskin baax na te moo ëpp tuyaaba ndax ñaari yëf la ndax doxu mbokk da cee nekk dimbulee nekk ci bu dee mbokk nag mën nga koo bañ a tudde sarax waaye nga tudde ko dimbulee dimbuli sa mbokk jubluwaay ba doon sarax ndax suñu aada moo moo xaw a indi ak rëy ba nit ki lele bu ko mbokkam jëloon dara comp jox ko mu ne ah moom de asakaam dong la may dimbalee wala euh, ñu ne ko sarax ngay dunde wala yu demee noonu waaye daal baax na baax na euh, ha ha antum haulahi tud'awna li tunfiqu fi sabilillah fa minkum man yabqalu wa man yabqal fa innama yabqalu an nafsihi wallahu ghaniyun wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qawman xayrakum summa la yakunu amsalakum suñ borom nee na yéen ngi nii yéen a ngi nii yàlla ñuy woo ci ñu dépenser ci yoonu yàlla am na ci ñun ñoo xam ne dañoo nay duñ joxe waaye nag ku nay bañ a joxe yàlla neen sa bopp rek nga koy def man de li ma yor doy na ma sëkk te li ngeen yor maa leen ko mosal yéen ñëpp ma aajo woo nag te man aajo woowuma leen te nag li ma leen sant bu ngeen ko bañee def it su ma soobee ma jële leen fi indi fi ñeneen ñoo xam ne su ma santaanee ñu def ko mbokk yi bu ñu déglu ci histoire ak waxtaan bis bu set nga dégg ñu tuddal la ñu baree baree baree baree bare ci réew mi ñoo xamante ne lañ amoon dañ ko daan bokk ak seeni mbokk dañ ko daan bokk ak nit ñi di dimbulee dañ ko daan bokk ak eh, ñu baax ñi ca kaw ba ci suuf ba ci ay benn benn yoo xam ne fi mu ne lu ñu yor da ngay wax ne yàllaa ko bàyyi ci seeni loxo yàllaa ko bàyyi ci seeni loxo waaye bu ñu gisee ku ku ñu ku ñu war a dimbali xaa xalaatatuñ njaboot xalaatatuñ donoy ëllëg xalaatatuñ dara dañuy daal di yëkkati dimbalee ko moo xam kooka ku ne ci daara la moo xam ku nekkul ci daara la dimbalee rek te te ñooña suñ borom subhaanahu wa taala da leen a tagg da leen tagg ci alxuraan tagg yu yaatu wa yut'imuuna taama ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asiran innama nut'imukum li wajhi llahi laa nuridu minkum laa nuridu minkum jasaan wala sukura inna naxaafu min rabbina yawman abuusan qamtarira fa waqaahum allahu sarra dhalika alyawmi wa laqaahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa xarira allahu akbar joxe ngoog ak am solo ak am solo suñ borom nee na ñi nga xam ne dañuy joxe jox aw ñam jox aw ñam miskiin jox ko jirim jox ko ko jox ko ku tumuranke moo xam prisonnier la wala la ku man di doon waaye bañ koy joxee yàlla dong nga tax innama nut amukum li wajhillah dañ koy joxe te yàlla dong tax jubluwuñ ci ak cant sàkkuwuñ ci fayug nit ragal seen boroom a tax ñu di ko def suñ boroom nee na ma fegal leen ci mbugalum ëllëg yowmal xiyaam buñ dajeeg lañ doon jëf te muñ taxoon ñu jëf ko ndax joxe dafa laaj muñ wa bi ma sabaru la nga xam ne dañoo muñ xeex ak seen bakkan not ko moo tax ñu joxe ko ëllëg yomal xiyaam képp ku ñoom dana leen ñee képp ku ñoom dana leen ñee ndax dañoo nangu woon a dépenser ci seen alal weeru koor kon ànd ak li nga xam ne mooy joxe soññee ci soññee ci soññee yu yaatoo yaatoo yaato yaatoo ayyumal mu'min at'ama mu'minan ala ju' at'amahu llahu yawma alqiyam min samaril janna wa ayumal mu'min saqa mu'minan ala sam'i saqaahu llahu yowma alqiyaama min raxiqil maxtum boo demee ci ab tarqib wa tarhib yonent bi alayhi salaatu wasalaam lañ fa wax ne moo ne bépp aji gëm goo xam ne dafa jox moroomum jullitam ne moom mu lekk mu jox ko mu lekk moo xam dafa xiif wala da koo jox mu lekk ndax jublu ci ak jaamu yàlla moo tax invitation yi ñuy def ak daje kër nit bokk añandoo bokk reerandoo yiw wa ca nekk kenn xamul nu mu toll nee na ëllëg yowmal xiyaam suñ boroom dana ko jox mu lekk ca meññetum aljanna ma waaw meññan ma nga xam ne ku ca lekk dootoo xiif yàlla dana ko ca berndeel bernde yu yaatu ndax dafa nangu woon a joxe alalam bépp aji gëm goo xamante ne moroomum julitama mar mu fexe ba mu naan ëllëg yowmal xiyaam suñ borom jox ko mu naan ca ndox ma nga xam ne ku ca naan dootoo mar raxiqul maxtuum waaw mu jox ko ca mu naan ba màndi allahu akbar mbokk yi joxe baax na lool alal dana tax nit ki dugg aljanna dana tax itam sa moroomi nit ñi e, bëgg la waaw dana tax nit ñi bëgg la kon e, lu baax la nañ ciy jaamu yàlla nañ ciy jaamu yàlla ñaari xeeti nit ñoo am ci ñi war a dimbali kenn ki moom dalay laaj ndax moom dafa ñàkk ba noppi mën a laaj moom la ñuy wax miskin kenn ki nag amut waaye mënta laaj kenn ki amut waaye mënta laaj ñooñu nag bari nañ lool bari nañ lool ñoo xamante ne amuñu waaye mënuñoo laaj bu ñu laaj sax lan la ñuy wax lañ jut xam waaw lan la ñuy wax lañ jut xam léeg-léeg euh, euh, seen position ci wàllu société bi mayu leen ñu laaj position boobu mooy la ñuy liggéeyee wàccuwaay bi ñu war a am ci yow ndax tey ki nga xamante ne tey danga koo bëgg lool di ko bàyyi xel wala ci lu mën di doon tey mu laaj la suba mu laajaat la loola am leneen lu wàññi te fekk na ndimbal loo ko jox ne ko joxal diw moom mi nga ko jox ne ko joxal diw moo la ko gën a yittewoo waaye mënta laaj koo koy faxiir lim yor doyu ko mi ngi ci tumuranke bi nga ko gisee muy waaxu solo mbaseem di dem lu mu fayee boro ko tax a jóg wala ñi muy wute yendu këram tey ndax jaaxle waaye nag du laaj kenn yow nag mi ànd ak moom boo muy tuut moom ngay jox dara ne ko jot lil ma kee di yelwaan waaw ah, mu jot li ko kooko daa jëra dimbali moom ci boppam ah, daa jëra dimbali moo tax kiy joxe joxe te yàlla tax day dimbulee te yàlla tax bu ko defee daat cay noppi laa tadxulul janna laa tadxulul jannata xatta tuminu wala tuminu xatta taxaabu waaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam neen du ngeen dugg aljanna mukk lu dit dangeen gëm waaye ngëm gi koy firndeel mooy ngeen bëggante waaw lii firndeel ne gëm ngeen yàlla gëm ma man Mustafa alayhi salaatu wasalaam mooy ngeen bëggante bu ngeen bëggantee rek gëm ngeen ma bëggante googu nag dafa bokk ci li koy dëgëral mooy nag di dimbulante di dimbalante di comp ci wërsëg yi di comp ci wërsëg yi di dimbali ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo waaw di comp ci li la yàlla wërsëgal di dimbali ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo lu baax la waaw lu am solo la aw yiw rek la dimbali jàmbur mbokk xarit ñépp ku man di doon rek da ngay fexe ba li nga yor ñu am ci wàll bañ koo def mu nekk réglé wu kaayu sa yennati problème waaye nga joxe te yàlla tax waaw joxe te yàlla tax bu ko defee rek suñ borom subhaanahu wa taala mooy fayaakon bi te moom du sànq yenn jëf moo tax alayhi salaatu wasalaam ci soññee ñu joxe ci weeru koor mu indi ñu li ñuy wax taftiru saa'imin maanaam jox ndogu ku wooroon ba dog jot yonent bi nee na koo xam ne dafa dogal aji woor kooram am na tiyaaba ju toll ne kooru waa ji te du wàññi ci kooram gi dara man fatara saa'iman kaana lahu misla aj ajrihi misla ajrihi xayr annahu laa yanqusu min ajrihi laa yanqusu min ajri saim ki nga xamante ne ni dafa woor ba ngoon jot mu dogal ko jox ko ndogu mu dog nee na am na tiyaaba ju toll ne koorug waa ji te du wàññi ci kooram gi dara loolu doon lu lu yéeme loo xam ne bul ko déggee ne joxe ko joxe gi kon mooy joxe ko ci eh, ci jamono jooju rek dimbali ko mu jeex déedéet waaye dañoo bëgg nag nga jànge ko ci nga jànge ci dimbali sa mbokkum jullit nga jànge ci dimbali sa mbokkum jullit ndax noonu nga ko dimbalee ci jamono jooju noonu la ko lislaam bëggee nga nga wéy di ko di ko dimbalee noonu di ko joxe noonu te saa yoo ko joxee ngeen bokk tiyaaba ji nga am ci tiyaaba ju toll ne la nga ko defal te du wàññi ci li nga doon def dara te tiyaaba nag ci la ñu rawantee moom la ñuy wut ci àdduna moom la ñuy dajale ci àdduna ngir ëllëg yowmal xiyaam buñ ko juugee mu defal ñu ay jeexital yoo xamante ne duñ ci am dara lu ñu réccu incha allah dañuy ànd ak dem eh, boori commercial te dellu si waat jotaay bi incha allah ci kanam tuuti lay doon eh, ñu dem te ñëw وهل سوف يشفي البروح بالشجو والنطق أحن حجري عزي حجري عزي حجري عزي وبإقلاعي إبائي عاصب الهما عاصب الهما عاصف الهامات مقداما جريا حجري عزي حجري عزي حجري عزي ومقلاعي هبائي عاصف الهامات عاصف الهامات jërëjëf mbokk yi ñuy bàyyi xel jërëjëf jërëjëf auditeurs yeeg auditrices yi soppeek am di jàmm yi jërëjëf waa commercial jërëjëf partenaires yooyu nga xam ne ñoom lañu àndaloon ñu indi seen i yëglu noonu ngir bëgg koo dugal jotaay bi ngir mu siiw yal nañ ci dajeeg moom mbokk yi kon ñoo ngi ci suñ jotaay bi nga xam ne mooy an nuur nekk ci xaaj bu njëkk bi doon waxtaane tey lu jëm ci wàllu sarax ak importance bi nga xam ne moom la am li des ci suñu diggante ak ñuy tënk xibaar yi allah ñu fàttali fukki fan yu mujj yi nga xam ne moom lañ nekk di fukki fan yi nga xam ne moo mujj ci weeru koor yiw yu rëy yi nga xam ne moo ci nekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam soññee ci lool saxaaba yi itam joxoon ko importance nit ñu baax ñi joxoon ko ko bokk na ci yooyu liñ ci xool laylatul xadar ci fukk yu mujj yooyu tax na wàcc waayam rëy lool waaye itam lim nekk jeexitalu mbir mi ndax kenn ku nekk lam nekkoon mu nekk aw yiw ci moom ba mu ñëw ba ca jeexital ba day mel ne bu doon dafa toog sax day jóg day jóg taxaw ndax wane ne mbir maa ngi bëgg a jeex mbir maa ngi bëgg a jeex te lim doon def lépp ci kumpa la xamut nu mu demee xamul ndax enregistré nañ ko xamul ndax enregistré wuñ ko xamul ndax mat ndax baax na xamul ndax baaxut te mi ngi jeex di dem te bari na ñoom fi fekkoon daaw mu ñu mu àndoon ca ak ñoom ñu nekkoon ca te ren jii bi muy ñëw fekku leen fi moom xamut kan la ci ñooñu yàlla nañ bokk ci ñu koy fekkee at yu baree bari ala kulli alin buñ tollee ci di ko jeexal kon yitte lay doon fukki fan yu mujj yooyu doon fukki fan yoo xam ne dañ koy dundal waaye mbokk yi seytaane mi ngi tënkoon nag mu ñuy ñele joo ko piis day mel ne yaramam da ciy tàng lool ba nga xam ne bu sañoon duñ ko jeexale mukk ak ndam marché yi feesaat dell fi mu ne la def nit ñi di waajal loo xam ne dañ naan lu xew lu xew lan lañ dëgmal lan la ñuy waajal lan mooy bëgg a xew ban importance la am ban solo la am nan lañ ko war a waajale lan moo war a bokk ci waajtaay wi ak lan moo ci wërta bokk mbokk yi loolu jar naa xàmmee jar naa xàmmee liñ doon def ak jaamu yàlla la goo xam ne ngërëmul jalla jalaaluhu lañu ci doon wut wa azza kamaaluhu ndax am nañ ko ci wala déet benn importance bu réy boobu ak bis bu neex boobu ak yiwu bari woowu moo ñuy mooy jeex moo ñuy won ginnaaw di dem ñi am xel seen ruu ngay fipp ba koo topp di jooy naan ko ah ñoon ruu yi de lañ doon dunde nga xam ne dañ doon dunde alxuraan jàkk yi fees ñu koy dunde waxtaanu diine yi ci rajo yi di ko dunde fu mën di doon loola moom tàmbali nañ koo ñàkk li fi des kay mooy dunduk yaram yi ak dunduk bànneex yi bu ko defee fecc mi war a tàmbaliwaat woy yi war a tàmbaliwaat gundaandaat gi ak ndaataata lax gi war a tàmbaliwaat fees dell li nga xam ne mooy dëkk bi fukki weer ak bennati incha allah mbokk yi bu ñu tàqalikoo ak bis boobu te doon jullit doon ay nawle yoo xamante ne yàlla dafa tànn ab yonent alayhi salaatu wasalaam yónni ko ci ñun dafa mel ne am na noo xamante ne noonu lañ ko war a waajale am na noo xam ne noonu lañ ko war a jeexale niñ koy jeexale di ko waajale mooy lan niñ koy jeexale ak di ko waajale mooy lan kayfa yusqa sha'buna zulman ngi jégalu ci dagg-dagg boobu waaye mi ngi noonu bu ko defee buñ koy waajal boo demee ci marché yi da nga gis ne am na yoo xamante ne bokku ci woon te jëru ko woon am na koo xam ne waajal korite moo ko tax taxaw wari ndax di ko waajal ci anam goo xamante ne nii eh, ni mu koy waajalee mën naa bañ a demee noonu ak yu demee noonu yooyu yëpp dafa bokk ci yi nga xamante ne ak yàq la te la muy jur bu boobaa du bari kon nag ñu jéem koo dundal ci ni nga xamante ne noonu la lislaam bëgg ñu dundalee ko te mooy delluwaat ci jàng alxuraanul karim ñi ko mën a jàng lépp ci guddi yi di ko taxawee eh, boole kook seeni koor ñi nga xamante ni dañ koy dundale ci xeeñtu laylatul xadr moo xam dañ koo jagleel ab bis wala dañoo jàpp ne bis bu nekk mën na koo doon ci koor gi ñu jàppe ko noonu bu boobaa loolu baax na ñi nga xam ne dañ koy dundale ci ixtikaaf maanaam dem dëkk ci jàkka ya euh, fukki fan yu mujj yi nga xamante ne dañuy dogoo ak àdduna nekk fa di jaamu seen borom subhaanahu wa loolu ba tey aw yiw la su ko defee loolu dana tax nit ki mën a defar ab xolam dana tax nit ki mën a defar ab xolam dana tax nit ki mën a defar ay jikkoom te loolu daa bokk ci li nga xam ne dañ ko cee war a jànge yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yaram wi am na ci benn cër wala benn affaire boo xam ne moom lañ war a fexe ba mu baax ndax bu baaxee rek lépp baax bu bonee nag lépp bon ñu ne ko lan la mu ne mooy xol dafa wax ne inna fil jasadi mudqa isaa salahat salaxal jasadu kullahu wa isaa fasadati fasadal jasadu kullahu ala wahiya al xalb mu ne mooy ab xol xol nag bul jàpp ne mooy lumb wi ci biir di yëngatu waaye mooy yëg-yëgu nit ki ak li nga xam ne ci lay dox ak lépp loo xam ne moo koy animé ba loolu dox ci moom nga xam ne fu mu yëngatu jëm rek fa la ay neexitalam di jëm fa la doon def ci lu euh, doon gaawantu di jëm lépp lu mën di doon rek loolaa def xol nit ki nag day fexe ba laabal ko am yum dogu ndax moo gën a xam boppam ñëpp balil insaanu ala nafsihi basira ci fukki fan yi mujj mu dogu ne man nangam ak nangam de samay jikko la woon bàyyi naa ko damaa mënoon wax lu du dëgg ndax xam naa ko ndax fu ñu mës a toog may waxtaan waxtaan wi neex la koy neexal mooy sama animation yi may def rek xam naa ne nag la ci ëpp du dëgg ñu naan ma da ngaa saf xorom dogu naa ci weeru koor wi rawatina fukki fan yu mujj yi bàyyi naa ko dama siis ndax ku siis xam nga ko mooy wane ne am na yoo xamante ne xajoo ko yaa gën a xam sa bopp da ngay dogu ci bàyyi ko ci ñaan noonu ñàkk yitte noonu ñàkk lewet noonu bu ko defee am jikko yoo summeeku am jikko yoo solo bu ko defee jeexital lay daal di tàmbulee def ci ñun da ngay def euh, at taqalli wa taxalli bu ko defee rek mu daal di tàmbulee baax ndax weeru koor waxoon naa la ne ci lañ wàccee alquran kon nafar ko ci farata la tilaawatul quran bi tadabburi wa xusu wa tibaari maanihi wa amrihi wa naayihi loolu farata la ci jàng alquran waaye nag waxuñu jàngum dem rek waaye setantal ko boole ci ak ragal yàlla boole ci settantal maanaay alquran yi ndigal yi nga xam ne moo ci nekk tere yi nga xam ne moo ci nekk suñ borom nee na weeru koor ci lañ wàccee alxuraan alxuraan nekk ak njub neel nit ñi nekk ay orientation yu leer nekk luy tàqale dëgg ak lu dul dëgg dellu uh, ñu wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ñu wàccee ci moom alxuraanul karim daf ko daan nafarandoo mook jibril fii kulli yawmin min ayaami ramadan atta yutimma ma ansala alayhi min alquran wa fi sunna wa fi sannati lati tawaffa fiha xaraqa quran al jibril maratayni ba ci at mu mujj mi sax nga xam ne ci la yonente bi alayhi salatu wasalaam doon dëkkaale jeeg boromam nee nañ jibril ñëw na nafarandoog moom alquran ñaari yoon ci weer wi ñaari yoon ci weeru koor wi wax ne dee leen ko jàng ndax jàng ko am na njariñ jàng leen ko rawatina fukki fan yu mujj yi mbokk yi nañ koy wéttali ko ak jàng alquran iqra'u alquran fa inna lakum bi kulli xarfin xasana wal xasana bi asri amma inni la aqulu alif laam mim xarfun walakin alif xarfun wa xarfun wa mim xarf alayhi salaatu wasalaam na day leen jàng alquranul karim te ko settantal ndax alquranul karim eh, eh, bépp araf ci nekk rek aw yiw la bépp araf ci nekk rek aw yiw la waxuma nag ne da nga naan alif laam miim mu nekk benn xaraf déedéet waaye alif gi xarafu boppam la laam gi xaraf boppam la miim gi xarafu boppam la su ko defee jàng kook setantal ko farata lay doon ci kanam tuuti ñu ànd ak Adja Issa Niang tënk xibaar yi ci bitim réew ak yi nga xam ne moo ci aju mbokk yi dellu si nag ci li nga xam ne mooy jotaay bi insha allah xam naa koor gi dalaa jàpp tey waaye ñi ngi lay jaajëfal bu baax a baax baax di jaajëfal mboolem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel si FM seen rajo rawatina seen jotaay bii di An Nour jaajëfal bu baax a baax suñu jigéen boobu tënkum xibaar yi nga xam ne moom la ñu indi loon mbokk yi nes tuuti kon ñu ñëw ak yéen ci ñaareelu xaaj bi incha allah An mooy seen émission bu bees bu leen seen rajo Sud FM indil ci diirub weeru koor gi di ko tàmbale altine ba alxames 9h jàpp midi ñu ci amal ay thèmes yu am solo di ci indi ay reportage di ci dalal tamit ay gan yuy joxe seen xalaat mën ngeen ci participer soo leen wootee ci 88 628 98 An-Nour seen émission An-Nour di am altine ba alxames ngeen ci ànd ak Serigne Mbacké Sylla An-Nour An-Nour An-Nour من دمائي ترتوي الأرض فداء تنبت الأرض نضالا أبديا أبذل الروح وأشتاق المنية في يميني ناطق الصخر أبيا من دمائي لله ترتوي الأرض فداء تنبت الأرض نضالا أبديا جاهل الباغون أني في إبائي شامخ ما عشت يوما للثنية جاهلا ngeen jëf yi ci ànd ak ngeen ànd ak ci jotaay bi di an nuur jaajëfal nañ leen bu baax a baax ndokkeel leen fas yéenee dellu si ci ñaareelu xaaj bi niñ leen ko waxee woon bi nga xam ne moom la ñuy ubbi ginnaaw bi ñu jaaree ci xaaj bu njëkk bi ci waxtaane ñaari tomb benn bi jëmoon ci fukki fan yi nga xam ne moo mujj ci weeru koor ak ni nga xam ne noonu lañ ci war a gën a jëm ci wàllu sarax ak yi nga xam ne moo ci aju ak relation bi nga xam ne moom la am ak weeru koor gi ñaareelu xaaj bi nag ñu war cee am gan ndax xam ngeen ni jotaay bi di anuur noonu lay tëddee léeg ñu am gan goo xam ne day ñëw ñu jàngat ak moom yenn ci yi nga xam ne moo xew man naa doon ci wàllu diine mën naa doon ci wàllu société ak yi nga xam ne moo ci aju te lépp doon loo xamante ne lu amal njëriñ nit ñi lay doon ñu war a dalal ci ñaareelu xaaj bi suñu mbokk docteur Nafisatu Ndiaye euh, madame Ba euh, nekk koo xamante ne doctor la waaye dinay jàngale fële ci université Cheikh Anta Diop lu jëm ci fànn googu doon koo xam ne itam ku bëgg di yëngu ci wàllu yar ne day amal nit ñi njariñ euh, An Nour ñu fas ko ci yéenee dalal ci ñaareelu xaaj bi suñu diggante ak 11h incha allahu taala waxtaan ak moom ci ay yenn tomb yoo xam ne mën naa laal koor gi waaye mën naa laal surtout lu jëm ci wàllu jikko yi ndax loolu dafa am solo lool. te itam suñ borom subhanahu wa taala euh, solo sim jox nit ak li tax nit nit yëpp mu ngi aju ci ay jikkoom mi ngi aju ci ay doxalinam hmm, moo tax sax ba muy wax ci alxuraanu karim mu ne damaa bind nit Euh, muy doon ki nga xam ne moo gën a rafet ab bind la muy tekki mooy mooy ki nga xam ne moo gën a mat gën a war a mën a gën a matle ay jikko waaye bi mu sàgganee ay jikkoom dafa wax ne dana suufeel boppam ba gën a suufeel lépp luy suufe kon mooy wane ne waxtaane jikko am na importance te itam yaatu na lool du ñu perte temps ci loolu sax dañuy jaajëfal bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel An Nour jaajëfal mboolem gan ñi nga xamante ne ñoo ngi leen di xaar jotaay bi te léeg-léeg waxtu week dëkk bi ni muy xatee tax euh, ñëw ci jotaay bi xaw leen a jafe ci loolu la ñuy jaar jaajëfal docteur mi nga xam ne moom yooyu yëpp teewut jànkonte naa ak moom ba ñëw teew ci ci biir studio bi fas yéene ànd ak ñun waxtaan wi noonu la ñuy jaajëfal jàppale itam suñ mbokk du Makhtar Ka moom itam ñu ngi koy xaar ci biir ay bis gi mu war a ñëw moom itam indil ñu participation ci An-Nour ak mboolem doomi soxna yi nga xam ne yëg nañ ñu jotaay bi seen jotaay la bañ bëgg a sol seenu dàll indil ñu ci seeni i participation docteur asalaamaaleykum. waaleykum salaam oustaz. ñu bàyyi la nga nuyoo ak auditeurs yi. waa oustaz ma ma lay nuyu. Mhm. maa ngi lay sant di la sargal. di la baalu ak ci koor gi. di nuyu mboolum auditeur Sud seen rajo di leen di jégalu leen di baalu àq ci koor jërëjëf jërëjëf ñoo ngi lay fay nuyoo baal nañ la ak auditeurs yi itam ñu ngi lay nuyu di bég lool nag ci séq ak yow jotaay bu mel nii eh, bi ma lay présenté léegi wax naa na fi satu Ndiaye wax ne day jàngale ci université di yëngatu ci wàllum faj eh, fas yéene di waxtaan ci lu jëm ci wàllu jukko yi wala yooyu loolu mooy présentation bi wala am na lu ñu ci mën a yokk. ah yow sa présentation macha allah. Mhm. macha allah xam-xam moom nit ki da am rek wala amu ko. Mhm. macha allah mhm. amoo dara lu ñu ci yokk. alhamdulilah docteur tey bu ñu nekkee ci weeru koor mu nekk weer woo xam ne weeru jàng la Euh, léegi nag mu nekk weer woo xam ne it weeru jaamu yàlla la su ma waxee weeru jaamu yàlla wi mooy weeru déggal kilifa ak weeru nangu ndigal euh, dafa mel ne liñ ci war a waxtaane bari na maanaam buñ ne woor leen ñu xëy suba bañ a lekk ba ngoon jot ñu ne dog leen ñu dog te yem ci mën naa am ñu comprendre li ñuy def waaye nag bu ñu waxtaanee yenn tomb yi ci biir dana tax ñu gën koo comprendre doomu aadama sant loolu muy nit am loo xam ne moom la rawee ñu bari moo tax santuñu xar woor santuñ ko nag waaye nit lañ ko sant nit moomu mooy kan ak ay jikkoom ak loo ñu ci bëgg a indil waaw euh, li nga ci am daf ci am solo hmm. man sama xam-xam bu néew rek ndaxte yéen déglu leen macha allah tout tout temps ñu ngi ciy root luñ ci xalaat daal mooy comme ni ñu ko introduire rek mooy jikko yi mais maanaam ñëpp ñu am xam-xamu diine ñu ngi wax ci rajo bi ñu ngi jàngale waaye ba léegi dafa mel ni dégg-dégg bi dafa des Euh, suñu borom lu mu njëkk a euh, kàllaama bu mu njëkk wàcce wàccee mooy ikra mooy jàngal jàngal donc nit ki danga nga war a jàng soo xamee xëy na nga mën a gën a gëm ndaxte ñu dañuy xalaat ne Dakar Sénégal euh, si si àddina bi dafa am ñaari problème mooy ñàkk gëm ñàkk gëm bi nag ñu ngi ko xalaati ni si ñàkk xam la ndaxte bu fekkee suñu borom dafa ni jàngaleen wolof ne jàngal wax tubaab ne dafa ni liiral walla waxal parce que liiral ak waxal ak jàngal bokkul jàngal il faut que nga yokk sa xam-xam liiral mu nga liir loo xam ni xamoo ko waxal di nga wax loo xam ni xamoo ko ndaxte tey booy jàngale si biir classe bi am na ñoo xam ni di nga wax ñu xam am ñoo xam dinañ la dégg te duñu am dégg-dégg donc du du liiral du waxal mooy jàngal leneen nga wax a jàng jàngal sa diine lan nga wax a jàng jàngal nga xam kuy sa borom donc duñu war a dellu ci ikra xëy na bu ñu jàngee bu ñu ci xam gëm-gëm bi de gëm bi dina gën a mën a euh, yomb léegi ñu xalaat ni euh, boo xamee jàngale dafa fondamental ci xam mm-hmm. nit ki maanaam lu comme ni ñu ko waxee la euh, luy lu tax ñuy wax nit ak mala may xam may mm-hmm. nit ak xel mm-hmm. donc ba ma li lépp li jiitu ci sa diine may da nga war a xam dañ la war a jàngal Mhm. mécanicien bi dañ ko war a jàngal mhm. kii togg si waañ bi dañ ko war a jàngal mhm. duñ ko duñu rek ne ko di ko wan déedéet soo ko wanee ne ka defal li defal li defal li te xamul lu tax mu def ko du mun a avancé il faut nga wax ak xelam ne ko ah li ngay toggee euh, lii lii nga koy toggalee lii waroo ko dëbb ndaxte soo ko dëbbee li ñu ciy séentu si kanjax dañ koy dañ koy perte lii bu baxee dootu am ci jëriñ moom mu xam bu xamee moom mu yokk xam-xamam bu bu yàggee yow mi sax si sa bopp dina la waxal leneen loo xam ni xamoo ko. Mhm. ñu wax xam-xam ndaxte dañuy sottante xalaat. Mhm. waaye xel ak xel waaye bi ñu yemalee rek ci defal lii defal lii ñu lay wan doo xam. Mhm. doo maanaam jàngale jàng ak jàngale dafa dafa fondamental. dafa loo xam ne dafa am solo solo solo solo torop si nekku doomu aadama ndaxte mooy tax mooy indi ñuy développé mais loo mënti jàng islaam dafa rëy. islam waxul jàngal lii bu hmm. jàngal lii dafa lépp nga jàng parce que yëpp lépp nga ci biir islaam hmm. waaye loo koy jàng yëpp am nga nag noo ko wax a doxale hmm. maanaam tey boo jàngee dowal am nga am sa permis de conduire doo dawal nu mu la neexee di nga taxaw si feu rouge yi di nga tourner fa war a tourner di nga doubler fa war a doubler waaye mais wax ñu la amoo fa wax islam noonu la noonu la tëddee jàngal lépp parce que lépp yàlla moo ko sàkk mais soo jàng ni nga ko yaa ngi ko a jàngee ni ko islam bi buggee. Mhm. yaa ko wax a doxalee aussi ni islaam islam bi buggee. léegi mhm. boo jàngee ba mën ba xam dafay yokk sa gëm-gëm. Mhm. waaw lu ma yaakaar loolu dafay yokk sa gëm-gëm. da nga bëgg wax ne lépp mi ngi aju ci wàllu jàng euh, ngir nit ki nite moom ci boppam. maanaam du caagi ne dañ koy won rek waaye dañ ko daan jàngal suñ boroom wax iqra jàngal tubaab bi wax lii xëy na liiral wala defal nangam waaye daal nit ki kon dafa war a xam rek d'abord bu ñuy wax lépp lu muy def daf ko war a xam ngir doog ko mën a def. voilà da ko war xam. Mm-hmm. ndaxte euh, nit ki wala su ñuy wax toujours déggoo ma de. Mm-hmm. ma nit ki dina dégg te du xam. Mm-hmm. dina def te du xam. kon déggoo ma boog li muy tekki mooy xamoo xamoo li ma wax de. voilà mooy xamoo li ma wax. parce que xam-xam moo tax ñuy wax nit. waa mais dégg ñëpp ngi dégg. waa mais defal taxul nga xam. ndaxte nit ngi def loo xam ni ñun li nga ko defee du nii. ba mhm. li nga def xamoo ko. dëgg la mais bay wax. Mhm. li nga wax da ko war a xam. loo tuddee jàng da nga jàpp ne nit ñu comprendre luñ bu baax wala dañoo jàngut bu baax wala ñàkk jàng gi dafa feeñ wala lan loo de jàng yow. waaw nit yi dañu dañu soofantal jàng. dañ ko soofantal dañ ko soofantal jàng. Mhm. dañu soofantal jàng te jàng jàng loolu la suñu borom njëkk wax. jàngal jàngal dëgg la waaw. wa wa wàccagul woon alxuraanu karim. benn kàllaama la wax. jàngal kon jàng boobu. man maanaam lépp lu ñu def te jànguñu ko. Mhm. mooy mooy euh, def ñu li ñu wax li ñu wax. Mhm. jàngal ni ngay waxee. Mhm. jàngal ni ngay doxee. jàngal ni ngay jullee jàngal li ngay li ngay saafantoog nit yi lépp loo def da ko wax jàng. jàngal métier jàngal xam-xam. loolu mooy nit. nit moo tax jàng jàngale bi ak jàng nit nit ki dafa ko jàng pour mu nekk nit. parce que boo jàngee rek xam. boo xamee rek nga daal di euh, nga daal di yëg sa bopp. Mm-hmm. parce que da nga xam ni ah li nga def léegi xam nga ko. Mm-hmm. dangay def dara kontaan boo boo boo boo boo tabaxee sa kër euh, mason bi ñu jàngal ko palanteer yi fii la war a nekk lii ndax naaj bi fii lay jóge ngelaw bi fii lay jógee bu ma mu ne ah loolu moo tax dama defoon palanteer fu nekk li ngay ubbee. nga ne ko mm-hmm. déedéet moom mu xam mu ne ah dafay gën a yëg boppam. gën a sawar parce que xam na ni léegi xelam moom en tant que nit am na lu mu ci xam am na lu mu ci comprendre. nit nag boo ko bëgg a sas il faut nga jox ko liberté. Mmh. liberté mooy il faut nga jox bàyyi ko mu jëfandoo xelam. Mmh. mais koo xam ni euh, ndaxte am naa sama benn xarit daaw dafa demoon aji. Mmh. mu ni bu ñu demee di tawaaf ah, ñu ngi topp imaam bi imaam bi moom may wax ñoom ñuy répété ñu ne waaye bu ñu tàggatee seen tàggatu bu mujj ci kaaba gi ñu na ñu bare bu ñu demee xamul lu ñuy war a wax. ndaxte dañu xamul kooku xam kooku amul indépendance. ndaxte yaa ngi topp nit yàlla dafa bëgg yow nga xam. Mm-hmm. comme ça boo gisee nit nga def boo gisul nit nga def nit ki dañu war a di joxante xam-xam bi ñu sottante xalaat mm-hmm. nit ki nag boo nekkee mukkalaf yow yaa wax a dem jàngi mm-hmm. boo xamul yaa yaa war xamal yaa war a war a xamal na solo am na solo madame ci loolu nga xamante ne noonu ko indee ci wàllu jàng tomb la boo xam ne tomb bu yaatu la wax nga dëgg suñ borom bi muy yónni yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa am lu ko soof ci pénc mi ci waxin loo xam ne neexul yàlla mooy ay bant la ñuy samp di ko jaamu ku man sa morom duma waaye bi mu waxee yonent bi ngir mu war a ñëw defar pénc mi waxu ko ne ko demal daaneel bant yi waxu ko ne ko waxal waaye da ko ne jàngal ndekete kon bala ñoo sant nit ki dara dañ koo war a jàngal ba noppi door ko koo sant ngir dana tax mu xam li mu war a def lan la fan la koy defee ak nan la koy defee ak yu bari mais bala maa génn ci tombub jàng bi jàng dafa mel ni dafa bari ay façon ndax léeg mu jaaxal ma lool nga gis koo xam ne dañ jàng na ba jeexal li ñuy jàng ci fànn yépp nekk universitaire bu mag waaye ba tey nitewut bu defee nga xeeb ko bu waxee nga xeeb ko nañ ma baal waaye comportement am sensé wut ci yu bari bu nekkee njiit la dana wax nit ñu lu du def euh, këpp kees jomb ko bu dawalee ci circulation bi baare ko taxaw wiccaxi loxoom defu ko muy dara euh, ak doxalin yu bari c'est-à-dire boobaa nit ki day jaaxle ci jàng jàng mooy lan parce que kii jàng na ba mokkal alxuraan waaye ba léegi mi ngi am ay sikk kii jàng na ba jeexal liñ doon jàng ci programme waaye ba tey mi ngi am ay sikk kon njàng mi lan la kon ndax dafa mel ni école. Hmm. am na ay matières yu nekk. Hmm. am nga physique chimie sciences naturelles maanaam ay matières yu nekk. Hmm. yow yàlla xëy na yow sa xam-xam màcc na si wàllum physique chimie. nga am fa macha allah li jaasu bu rëy. te jàngoo français. jàngoo anglais. jàngoo fu ñu fa ooyee foofu dañ la fay xeeb. parce que matale woo. maanaam jàng métier. Mhm. taxul nga nekk intellectuel mhm. jàng pour nga nekk pour nga nekk maanaam spécialiste dafa xam mhm. mooy li nga li nga li nga li nga jàng pour sa jumtukaay àddina loolu mokkal nga ko am nga ci li di jaasa mais est-ce que nga maanaam bu nga nekk intellectuel dafa bokk dafa dim dafa dépassé euh, spécialiste da ngay jàngaale àddina da nga war a jàng nag ngay saafantoog nit yi war nga jàng wax nga jàng comportement mais nit yi léegi dama gis ni ñoom dañuy defe ne jàng bi mooy sa métier rek. Mhm. boo amee sa métier rek. yow loolu loolu moo tax nga def ne yow yaay nit non dangay da mat nit. kon dafa am jàng boo xam ne jàngu métier la ngir dund nga xam ne lii da koy jàng ngir liggéey am loo xam ne da koy jàng nag ngir doxalinam nga xam ne ruwaam moo ko moom. voilà loolu exactement ndaxte même sa métier boobu ba def sa métier yaa ngi def sa métier pour jaamu si sa borom. Mhm. bu fekkee yaa ngi def sa métier di jaamu sa borom mais yenn xeebaate yi kenn la ci xeeb. Mhm. ndaxte tey bu fekkee même tey bu nga nekk docteur bu gën a mag mais yow xam ne que li ngay def. pour mun jaamu sa boroom la yow sa euh, euh, ñi ngay liggéeyal war nañ xam sa yërmande ñi ngay liggéeyal war ñu xam sa naqari deret ñi ngay liggéeyee maladie war nañ xam sa ité sa pas-pas ndaxte yaa ngi si jiital yàlla hmm. maanaam lépp loo gis lépp loo jàng tamit te jiitaloo ci sa boroom yàlla barkee la ci jàng boobu dañ lay ciy xeeb hmm. ndaxte pour nga mottale kenn mënul mottale yépp hmm. waaye tout temps maanaam tey nga togg nga togg tout temps ceebu jën ceeb yi lu mu neex neex neex neex neex bés bu ne nga koy togg matin midi soir matin midi soir bu yàgg yi kii ceeb jëm bi mi commencé soof mhm. ñu toggal suba kaa ñu mënuloo ñu ne ah, ki nekk lii rek la mun dañ mhm. la daal di la xeeb mhm. donc nit ki da nga war a équilibré maanaam xam fu ne xam sa bopp booy jàng may li nga xam ni xale dañuy jàng rek mais duñu julli dañuy jàng te duñu woor dañuy jàng ñun parents yi ñu ñu jiital jàng bi euh, euh, jël diine bi def ko ci kanam da ngay jàng te doo seet sa bàjjet da ngay jàng doo seeti say maam da ngay jàng doo kenn kenn du la liggéeyloo. Mm-hmm. léegi bu xale boobu màggee fekk moom bu mu nekkee xale moom kese ak néegam ak doucham xamul papam xamul bàjjenam xamul maamam xamul diineem. Mm-hmm. kooku lépp loo lu mu munti nekk ci àddina bi. Mm-hmm. dañ koy xeeb. ndaxte li mu mattaliwul moo bari. ndaxte école benn matière kese boo ko jàngee doo paase. àddina bi nag booy jàng dafa am ay jàng boo xam ne lijaasa la jàng boo xam ne àddina la. jàng boo xam ne xam-xam la ak loo xam ne suñu boppam moo ko moom. Mm-hmm. Mm-hmm. am na solo ci wàllu jàng noonu nga ko indee kon bu ñuy wax wàllu jikko euh, fi nga tàmbalee am na solo mooy bu ñu bëggee jikko yu baax dafa mel ne faaw ñu delluwaat wàllu jàng moom la ñu faral di wax ne ñu delluwaat ci wàllu yar ak yi nga xam ne moo ci aju. Euh, am na solo beneen tomb bi nga xam ne moom lañ ci war a toftal incha mu ànd ak waxtaan woo ngay wax kon mooy euh, leeral rek li tax suñu borom di ñu sant yim ñuy sant nii nga xam ne moo war a tax suñu comportement baax dafa mel ne comportement yi penc mi xaw naa doy waar de soxna si waaw comportement xam na doy waa hmm. loolu rek mooy indi dañu xamul. xam nga hmm. ni kii boo xamul nga am comportement boo xam ni leerul. Hmm. ndaxte boo xamee li ngay def ah euh, bu la yàlla suturalee sa comportement nit ki dinañ ko naw. ndaxte yàlla soo ne pour nga mën a jàng pour nga am comportement mooy nga xam li nga war a def mooy nga gëm déjà da nga war a gëm sa borom. nga gëm sa borom mais pour nga gëm sa borom il faut que nga xam. il faut que nga xam li la yàlla sant. ndaxte toujours demee ni ñun. yàlla daf ñu daf ñu sàkkal diine ñun yàlla moo ñu tànnal diine. Mhm. te choix yàlla loolu kenn du ko lam lame mhm. bu ne moo ñu tànnal diine ñu juddu nekk ay di ñu juddu nekk ay jullit. Mhm. maanaam dañu doon dañ ko doon dañ ko hérité. mais est doon nañ ko. est-ce dugg nañ ci diine. est maanaam dañ koo doon mais ndax doon nañ ko. voilà voilà est ñun choisir nañ ko. waaw ndaxte euh, yàlla dafa ni. Euh, maanaam bu ñu waxee bu ñu waxee kàllaama bu njëkk wax mooy iqra waaye pilier de lislaam maanaam ponk l'islam bu njëkk bi mooy nga nga wax ni ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadu rasulullah donc pour nga wax ni que yàlla mooy sa buur yàlla mooy sa buur nga dugg ci diine bi yow il faut que nga nangu ni que yàlla mooy sa buur mm-hmm. mais pour nga dangu ni yàlla mooy sa buur dafa fekk yow nga xam yàlla mm-hmm. ñu jàngale yàlla bu nga nekkee xale ñu jàngale alxuraan jàngal la jàngal la bëgg yàlla jàngal la topp yàlla jàngal la ragal yàlla ndaxte sax xale balaa muy julli dañ koy jàngal alxuraan mhm. balaa muy balaa muy julli balaa muy woor day jàng koor mhm. léegi dañ la wax jàngal si diine maanaam boo jàngee si diine ñu xamale si diine ba nga bëgg yàlla bu boobaa dinga ko di nga di nga mën a gëm li suñu boroom wax di nga mhm. mën a am fois waaw ñu ñu ñu xamal la ndaxte euh, boobu six ans ndaxte lu xaw a yéemu mooy si médecine bi booru entre six ans ak huit ans am na loo xam ni xelu xale am na fu muy fu foo xam ni dara mënatu si dugg mhm. dara mënatu si dugg mhm. te yàlla dafa ni xale yi xamal ko bu ma am six ans sept ans bul dóor mhm. donc âge boobu ni la xamal ni la xamal sa borom buñ la ko xamalee bu boobaa di nga ko bëgg boo ko bëggee nag macha allah euh, dox li mi day gën a yomb topp si diine day gom day gën a yomb parce que bu boobaa dinga fonk sa borom yëg ko bëgg sa yonante mhm. am na solo jërëjëf kon ci wàllu jàng nga ñu indil mën naa ko waxe noonu ngir mu nekk benn lumière boo xam ne mooy niital nit ki ak dundam ci àdduna ba ay jikkoom mën a baax ba du def eh, dara lu ñu koy xeebe nekk tuuti rek ñu ñëwaat wéyal jotaay bi incha allah ànd ak ñun ci si FM seen rajo rawatina seen jotaay bii di An Nour mbokk yi moom la ñuy wéyal tey xam naa ne dafa mujj ala dawme ndax ñoo ngi doon waxtaan ak soxna Nafi Sëtu Ndiaye euh, madam Ba di waxtaan ak moom ci comportement yi di waxtaan ak moom loo xam ne dafa bokk ci li tax weeru koor jóg ndax damaa wax ne bu fekkee dañ ne leen ñuy woor ba noppi ñu ne ñu koor gi daf ñoo war a raxas bañ set ci bépp ay boo xam ne amoon nañ ko bàyyi ñu doon ñoo xamante ne nii ñu mat la ñu doon buy dem loolu dañ koy tudd ay baat lay doon yoo xam ne buñ ko junjee bàyyi ko noonu ngir ñu àgg ca mën naa jafe waaye nag buñ ko tuddee ba ki ko xamu doon yëg ne ndekete lii bokk na ci li may xaar dina tax mbir mi gën a sori Euh, An-Nour di jotaay boo xam ne dañ ci bëgg di dalal ñi nga xam ne jàpp nañ ne seeni xalaat mën naa jariñ nit ñi waaye mën naa bañ a doon sax koo xam ne dañ koy xam ci yàlla nee na ak yonent bi nee na nga xam dañ naan ustaas diw lañ dalal wala imaam diw lañ dalal waaye dañoo bëgg ñu yëg ne am nañu ne ci biir bureau yi euh, ba noppi itam mën a wax loo xamante ne mën naa jariñ nit ñi mën a def ay jeexital soxna Nafisatu mii ñu dalal tey ci suba gi euh, bokk na ci ndax docteur la nekk koo xam ne itam day jàngale ci université Cheikh Anta Diop lu jëm ci fànn googu waaye bi mu waxee ku ne yëg na ne yaay wax na ku ne yëg na ne ab yarkat wax na ku ne yëg na ne kuy ku bokk ci ñuy tabax nit wax na te loolu ab ubbi rek la ci biir jotaay bi ñu amaat ci suñ meneen mbokkum daara Cheikh Mamadou Makhtar Ka moom itam mu ñëw fekk si ñu ci biir waxtaan wi xam naa ñun ak moom li ñu wax ñoo bokk lenn cin lu ko togg mooy dara du ci génn daara dara du ci génn yarum mag ñi incha allah moom lañ fas ni boole ak soxna Nafisatu ñu seq ak ñun jotaay bi ci ay minutes yi nga xam ne moom lañ am ndax anduur moo mel noonu bu keneen ñëwaatoo nit bokk jotaayu daaraa mel noonu penc mi la damay faral di wax euh, sama mbokk Mali Alioune Ndiaye ca 2STV ne ko euh, bu ñuy waxtaan sax du ma wutal tem waxtaan wi dama naan la rek kaay ñu waxtaan ñu toog waxtaan li ñuy waxtaanee mën naa yaatu ba ku nekk man cee am njariñ bu fekkente ne ñi koy wax nose nañ ko te yéene yi sell euh, soxna Nafisatou xam naa yaa ngi woon ci tomb bu am solo léegi di waxtaan ci wàllu jikko ma ne la rek jikko yi dafa mel ne ci la ñuy tàmbalee nga joxoñ lu jëm ci wàllu njàng muy lu am solo ndax wax naa la ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu ñëwee ca suñ borom di ko tànn la mu ko njëkk a wax mooy jàngal jàngal gi mooy xamal boo xamut doo xam fooy tàmbulee doo xam fooy yem mu mel ne aw xeet mënuñoo dem ca kanam te xàmmewuñ mm, bi baax ak bi bon jànguñu ba xàmmee nit nag dana réer ci biir ab xam-xamam dana jàng ba noppi sànku ci xam-xamam ndax ñi jàngale wàllu yar dañuy wax ne li ñuy wax woru woru ñu koy wax xurur ni muy amee ci ak noonu lay amee ci xam am na koo xam ne mënta jariñ boppam mënta jariñ askanam te jàng ku ko yóbbe waaye nag kii jariñ askanam jariñ boppam itam day jàng waaye loolu lépp mi ngi tegu ci sellal mi ngi tegu ci ak tegu ci yoon dafa mel ne foofu lañ jotoon a yem ci waxtaan wi bala ñoo dalal suñ gan gi waa dëgg la ndaxte li nga wax oustaz mhm. dama ci ànd ak yow mooy nit ki dina dina jàng pare réer ci xam-xamam mhm. mooy li ñu doon wax ci tàmbali bi mooy lépp loo xam aussi boo koy tëral mais exemple ki ma doon wax kiy dawal am permis de conduire da ngay tënku ci islam. Mhm. loo mën ci jàng aussi boo koy boo koy déroulé da ngay tënku ci islam. Mhm. ndaxte ñun eh, eh, yàlla suñu borom daf ñuy daf ñu won daf ñu yónni benn professeur. Mhm. kooku moo gën a mag ci professeur yi. may may yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ja def leen comme moom li mu leen wax maanaam tey buy nekkee médecine am na ñuy woy ay maître mooy ko xam ne kooku moo la jàngal médecine. kooku moo la jàngal ko man maa ngi koy maa ngi koy maa ngi ki ma jàngal dafa làqu mm-hmm. médecine professeur Papa Demba Ndiaye yal na suuf euh, yof ci ci kawam amiin yaa rabbal alamin ci weeru koor gi mm-hmm. ma ma ba léegi damay gis ni que moom daf ko doon def moom daa woon wax kese mm-hmm. day def mu ni la nii la dalay wan ni la nii la dalay jàngal jàngale boobu nag moo nekk exemple exemple boobu nag moom la ñu yàlla boole ak ak rasulullah mooy euh, def leen comme lu rasulullah lu mu koy defee ndaxte yéen xamu leen bu mhm. ñu tënkoo nag si rasulullah lu mu doon def duñu duñu réer suñu xam-xam mhm. ndaxte soo xamee tox tey ma gën a bëgg wax waxu jàng ak médecine bi mhm. yàlla dafa ni bu mu nee jàngaleen dafa ni xamaleen ni que man yéen nit maa ngi leen di euh, fabriquer ci deret yàlla soo ko nee mu ni nit nekkal mu nekk du jaar mu nekk ay lum bu deret di développer di développer ba nekk nit foofu yàlla mun la bëgg woon màggaayam ngi la bëgg woon deyooyam mu ngi la bëgg woon pouvoir am maanaam tey ma damay wax ne que yàlla ci enseignement biologie la njëkk tàmm hmm. moo tax tey boo nekkee ci faj ci ay docteur nit yi di la jox gëdd c'est pas parce leen di wéral ndaxte yàlla mooy wéral hmm. ndaxte bu ko am na ñoo xam ni duñu dem ci docteur bu ñu ñaani wér dëgg la waaw mais lu tax di tax borom xam-xam yi ne ah man de bu mënoon choisir métier docteur laa choisir. Mhm. ndaxte dañu xam ne que foofu yéemu ci sa borom fa la gën a yombee. dëgg la laa biir fa la gën a mën a yombee. Mhm. maanaam boo nekkee docteur. te mhm. nga gëm yàlla sa gëm yàlla dafay gën a yombalal. maanaam yàlla dafa defal ay bonus. ndaxte chaque jour nga gis loo xam ni war na la mun delloo ci sa borom. bu li bu buy ne lumbu deret boobu yàlla jox la ko mu màgg ci yow war nga xam li ngay lekk war nga xam li ngay li ngay li ngay nooyi. moo tax ñii béykat yi aussi am nañ ci solo hmm. ñu xam lu ñuy béyee ak ak lu ñuy ak lu ñuy euh, lu ñuy lekk ak lu ñuy nooy ci jaww ji yëpp hmm, hmm, yàlla ne si si toujours si iqra mu ne générosité man mii yàlla ma may maye donc yàlla bu mu la ne jàngal bu mu la ne bu mu la ne bu biologie dafa ñëw si jikko ne effet faut généreux man man yàlla générosité boobu moom laa bëgg ak mu ñëwaat ne la jàngal. Mhm. lan ngay jàng ne la jàngal di bind. Mhm. ne ndaxte tey science bi wane na ni que li ngay jàng bind ko ak li nga jàng ak bët ni bokkul. Mhm. li nga bind doo ko fàtte. moo tax avant mag ki doon bind. maanaam ponk yëpp yii yëpp dinañ ko xam naa un jour dañu amaat émission. di ñëwaat si ponk bu nekk ñu xool naka la ko science bi fekke ci diine bi. am na solo voilà am na solo docteur dinañ ci ñëw comme ni nga ko waxee ci ni gën a yaatoo dañuy dalal suñu xarit euh, Cheikh Mamadou Makhtar euh, soxna si dugg nga fa am solo ci iqra ci boppam donte li ngay wax mën naa mel ne lu tubaabe ci daara ji ba buñ ko déggee sax euh, ne waaw fan la ne ci saar wi waaye da ngay gis ne ñetti baat yooyu yëpp mi ngi ci saar wi iqra bismi rabbik kon jàngal waaye na yàlla tax ngay jàng ak defar pénc mi allati xalaqa xalaqal insaana min alaq suñ borom mi nga xam ne moo bind nit te ko ci deret yi ngay wax ci science ak wàllu médecine ak yëpp lépp day dugg ci biir loolu iqra wa rabbukal akram jàngal ba xam ne teraanga ci sa loxol boroom la nekk waaye nag jàngal ngir nga xam suñ borom mi nga xam ne mooy xamal nit lim xamul woon Cheikh Mamadou Makhtar asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Mbacke alaaji am nañ mbégte lool ci dalal ci suñu jotaay bi di An Nour wallaay ñun ñoo gën a bëgg lool ci fekk si la ci seen studio yu taaru yi macha allah macha na ngeen defa koor gi <laughs> ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax alhamdulilah waaw tubarkàlla xam naa ne tey nga wax ci kaw ñu dégg la waaye ci ñiy doxal jotaay bi ci suuf ci say xalaat nga bokk ndax sa diggante ak si defe moo waral loolu defe naa ku ne ci kër gi rek sa xarit la loolu du tey waaye yàgg na jiitu nañu ñun ñu nekk nag di waxtaane suñu yoor yoori koor gi suñu émission bu yees bi nga xam ne dañ ko fee indi wuutale ko bi nga xam ne moo daan am lu nekkut koor ngir bëgg gën a jege jamonoy koor tey nag ñuy waxtaan ci lu am solo ne ci fukki fan yi mujj ci weeru koor ne ci tàggutoo ak gan gu tedd gi nga xam ne mag ñi dañ ko doon woy buy ñëw hmm. euh, olof yeeg wala boog ñu dëkkee réew mi daan ko beñeel bu demee ba bisu korité dañ daan beñe pour wane ne gan gaa ngi dem ñu tàggutoo moom gungee ko suñu beñe kon dafa mel ne gan gu tedd la woon teraangaam ji tax na mu indil ñu xéewal yi yëpp ba soppe yi mën a daje di mën a waxtaan luy jëriñ nit ñi Cheikh Mamadou Makhtar jërëjëf sëñ Mbacke Sylla maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la sant itam di la ziar ci euh, teewaay bi nga xam ne teew nañ ko fii. Mm-hmm. di nuyu itam soxna su tedd si nga xam ne maa ngi ko fekk ci studio bi moom it muy waxtaanee waxtaan bi am solo. Mm-hmm. muy waxtaanu xam-xam. Mm-hmm. Euh, li ko yàq rek mooy madame Ba. <laughs> madame Ba gi Baadu. <laughs> waaw li ko yàq waaye lépp rafet na. macha allah xam-xam bi rafet na bu baax a baax. Euh, maa ngi lay déglu sànq ci yoon bi bi may ñëw. Mm-hmm. ngay waxtaanee fukki fan yu mujj yi. Mm-hmm. muy fukki fan yu am solo. Mm-hmm. yaakaar naa yaa ngi doon waxtaanee tabe itam. Euh, tabe nag euh, dafa am solo ndax soxna si mu ngi wax léegi di tudd sangu sangu yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi moom mi nga xam ne moo gën ñëpp. ci wàllu wépp moom mi nga xam ne itam moom la nu royloo. moom dégg naa la itam ngay wax maanaam nafar gi nga xam ne mu ngi ko doon nafar alquran mook jibril mhm. ci weeru koor gi mhm. euh, rasulullah sallallahu alayhi dafa tabe woon waaye rawatina weeru koor weeru euh, moom dafa doon def saa yu doon toog ak jibril bu jotaay wi jeexee rek mhm. diggante foofu ba jibril di ñëwaat day gën a yokk tabeem moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam euh, mu xamle ne tabe maanaam alal dafa sax ci xol te yaa ngi wax itam lumb bi nga xam ne mhm. rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na bu moom bu baaxee rek lépp mhm. baax mhm. suñu noon bu mag boobu nag nga xam ne mooy iblis moom foofu lay bëgg frenkulaay def ko këram te boo génnee nag di joxe sa alal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na saa yoo génnee sa alal nga joxe ko rek maanaam juróom-ñaar fukki pexe iblis yoo xam ne mu ngi ko doon muy ngelaw mu ngi koy jéem a roof sa biir yaa ngi xeex ak moom kon nag. Mhm. loolu euh, maanaam. aw yiw la aw yiw la wu rëy rëy. wu rëy rëy dëgg la. boo xam ne bi. Mhm. bu ci nit euh, ngooyee rek. Mhm. dina daal di dem ba am li nga xam ne moom la bëgg ci biir diine. muy ci fukki fan yu mujj yi nga xam ne moom la ñuy dund ci weeru koor bi. di itam euh, rafetlu li nga xam ne soxna si wax na ko léegi. muy diggante xam-xam ak yar. ndax dafa am benn mag moo xam ne doo doon faral di wax ne nañu maanaam tàggale. wutum xam-xam bi ak yar bi mhm. ndax soxna Aïcha mhm. ne woon na sallallahu alayhi wa sallam mu ne jikkoom alquran la mhm. dañ ko laajee luy jikko Seydina Muhammad mu ne mu ne jikkoom alquran jikkoom alquran jikkoom alquran mooy lan mooy lépp loo xam ne li yaa ngi koy def nga référencé ko ci alquran nga xool li ci yàlla wax nga natt ko ba nga xam ne ne lii mooy lii ci yàlla wax nga defee ko noonu wante nag euh, benn mag da doon wax ne njàng lu mu la yokk fekkee da ko yokk bu fekkee nga yaru day yokk yar bi Mm-hmm. bu fekkee nga doy waar it day day day yokk mooy li ngeen doon wax léegi nii nit ki jàng ba pare wante teewul maanaam mu doy waar waaw loolu moo koy loolu moo koy waral seen mm-hmm. bàkke mm-hmm. am na solo am na solo alaaji fi nga dugg am na solo defe naa soxna Nafisatu dégg na fi nga xamante ne foofu nga dugg lépp day fekk si liñ doon waxtaane muy jëmaat ci wàllu nit ak niteem ndax yonent bi modèle la boo xamante ne suñ borom def ñu koo royloo moo tax fu ne mu jaar fa ak moom fu maanaam fu nite fu ne ndax yàlla ci sañ-sañam mënoon naa def lépp te yonent bi du sonn ni mu sonn ne wala du jaar fi ñuy jaar ñun waaye bëgg mu nite mu nite moo tax mu naan wax ne nit laa ne yéen li ma wutaleeg yéen mooy liñ ma déey te déewuñu leen ko te loolu moo tax ñu ne leen roy leen ma ndax ngeen raw seen i moo tax ay jikkoom nekk alxuraan Cheikh Mamadou Makhtar dafa mel ne baat boobu rek doy na sëkk aw waxtaan wallaay mooy bu ñëwee Aysa kan mooy jikko yonent bi mu ne jikkoom mooy alxuraan mhm. alxuraan rek doy na sëkk kon aw waxtaan mhm. alxuraan dafa doy dafa doy dafa doy maanaam waxtaan mhm. surtout ci jullit surtout ci weeru koor yenn saa yi nag euh, suñu diggante ak alxuraan ñun dañ ko war a natt. Mhm. ndax suñu mag ñi euh, ku ci mel ne Cheikh Amadou Bamba dégg nga mu wax ko. Euh, Alaaji Malick si wax na ko Cheikh Cheikh Saad bu wax na ko ñoom ñëpp. Mhm. ku ci nekk jël nga sa diggante ak alxuraan nga fësal ko te jiital ko. dëgg la ba tey damay ñëwaat sànq ci li ma la doon wax maanaam wàllu tabe gi nga xam ne taamu nañ ko ci weeru koor itam. Mhm. xam nga jëf joo jëf. muy jëf ju baax. jëf ko ci weeru koor dafa gën a ti Euh, mu ngi mel ne tey. Mhm. julli gi nga julli tey ca Médine. Mhm. na muy ëppee dayoo. julli gi nga xam ne julli nga ko ci benn jàkk ci Dakar wallaahi boo jullee itam ci ca masjidul xaraam muy màkk mhm. na muy ëppee dayoo geneen julli goo xam ne julli nga ko feneen fudul foofu dëgg la noonu la tabe ci weeru koor itam di ëppee dayoo tabe gudul tabe weeru koor dëgg la est-ce que wante euh, sëñ Mbàkke euh, alxuraan li tax mooy mu mën a nekk suñu modèle social ni ko mhm. soxna si waxee léegi mooy ne dafa bawul dara moom moom lépp loo xam ne ni nit ki war na koo mën a jël maanaam di ci di ci attewoo rek alxuraan teg na ko wante dañoo toll ci jamono boo xam ne bi euh, alxuraan dañ ko ragalloo jullit ñi maanaam li nuy won jullit ñi mooy ne yow boo nekkee jullit nga di nitu daara wala mm-hmm. ngay nitu biro ñi nga xam ne ñoo yore mbiru administration mbiru àdduna mm-hmm. dañuy xaw a mooy tolloo mm-hmm. naan laan mbir mi réew mi layik la réew mi lii la te alquran maanaam tekkiwul ne yow boo ci nekk rek mënoo dund ak keneen koo xam ne ci bokk leen diine déedéet sallallahu alayhi wa sallam moom même ci tabe gi nga xam ne yaa ngi doon waxtaane léegi ci weeru koor daf ci doon fësal ñi nga xam ne itam duñu ay jullit ñoom di leen jàppale ci ñoom ndaxte yaa ngi fàttaliku uh, xissa uh, soxna si nga xam ne mu ngi doon jël ay pàkk doon ko tegal sëñ mhm. sallallahu alayhi wa la ci yoonu jumaa ji dëgg la to kooku bokkul ak moom diine mhm. waaye ba rasulullah sallallahu sa wa toogee lu yàgg gisul pàkk yooyu mhm. dafa laajte soxna si ñu ne soxna si dafa tawat mu dem seeti ko ba mu ko seetijee soxna si dafa xam ne kii valeur dëgg la morale bu am solo la am mm-hmm. mu xam ne ne kii mooy rasulullah sallallahu alayhi wa mu teg ci ashhadu la ilaha illa allah mm-hmm. dëgg la am na solo am na solo seex bi foofu nga dugg am na solo ci wàllu yar am na solo ci wàllu li ñuy royee ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ak ni ngeen ko ëndee euh, keroog damay def annuur di ubbi téléphone bi am ñuy woote di wax seeni xalaat di wax ci daara ba mu yéeme te ñoom ñëpp ay commerçant lañ mën leen ndekete borom xam-xam yaa ngi ci ginnaaw comptoir yi waaye ndekete itam réew mi borom xam-xam yi itam ñu ngi ci ginnaaw ordinateur yi toog ci bureau yi di saytu administration bi te loolu dalal na xel Serigne si Ahmad Tidiane si mi fi bàyyi ko bu yàggu dafa waxoon ne euh, bala ñoo avancé dëgg-dëgg dañuy dem ba julli jumaa jot Euh, jenn waaye jóge biroom ñëw ak costume am yéeg xutba euh, jiite nit ñi jumaa delluwaat ci ab liggéeyam bu boobaa ci la ñuy bañ a séparer ñaari nit ñi ñu jàpp ne ki ñuy saytul àdduna moom wërta xam da euh, dara ci yàlla àdduna rek lañ ko dénk ki ñuy saytul mbirum yàlla itam wërta xam dara ci àdduna boobaa am njaxas lay indi li nga doon wax nii léegi ci wàllu tabe gi ci weeru koor ak yooyu laay jox soxna Nafisatu mu misaalal ma ko en tant que kuy gëstu ci wàllu njàng en tant que kuy gëstu ci wàllu woowu bi ñuy wax ci weeru koor ak ci aju boo ñu ko doon nattal di ñu ko misaalal noo ñuy waaw dama euh, nga baal ma tuuti oustaz rek. Mhm. ma ma. nga ñëw ci Cheikh Madou Makhtar li mu doon wax ndaxte ndaxte moom dafa sant ka. waaw. mais ma may saluer xam-xam bi. Mhm, mhm. kilifa la kilifa la. wax wax bi rafet na. ma bàyyi ko mu dem ci kanam. bàyyee ni bàyyi na tey. ñu nekk di dernier jour mois ramadan bi. mu bugg jël tuyaaba bi. bàyyi naa ko mhm. mu nekk kilifa mu nekk góor mu nekk jigéen mhm. boobu tamit dama ko koy bàyyil mhm. mais sabab bu nekkoon fii nag xaw ndax boobu dina ko ko bàyyi ndaxte moom li mu wax lu mu li mu wax dafa danse gàtt mais am ay copp yu bëri li ma ci jël dëgg la ñett rek laa si rapidement pour ñu tontu li nga wax mooy dafa wax éducation ak enseignement maanaam xam-xam ak yar dafa am ministère de éducation nationale foofu ñu waroon éduquer xale yi di leen yarale ministère de l'enseignement supérieur mhm. donc ça veut dire que bu ñu egg ci mag yi mhm. éduqué nañ leen ba pare mhm. donc loolu aussi muy ay muy ay kàllaama yoo xam ne dafa important mu ñëw encore si dañu war a natt suñu diggante ak suñu al alxuraan muy intros introspection nit ki warul ragal xam xam boppam loolu aussi dama ko ci dama ci gërëm di ko ci san parce que mu nekk ay point yoo xam ni macha allah ku nekk même man su ma jógee fii damay defaat sama introspection euh, Oustaz Mbacké Euh, dama ragal ni que suba xale yi dinañ meree seen parents yi nga xam ni jàng jànguñu leen tubaab ak diine. Mhm. jamono ji ñu toll xale yi nga xam ne suba jàngaloo tubaab ak diine maanaam tubaab kese nga jàng te jàngaloo diine. Mhm. suba dinañ meree seen parents yi. Mhm. ndaxte jamono jooju dafa wees. avant xale yi dañuy wax dañuy parents yi dañuy regretter lu tax yóbbu ma sama doom école. mais alxuraan mooy mujje waaw mooy njëkkee mooy mujjee. xale yi dinañ mere seen parents yi lu tax yow jàng tubaab kese nga ma def deux ans ba dix huit ans. Mhm. répétiteur yow tey mosuloo ma jàng alxuraan. Mhm. parents yi nañ def attention ndaxte jamono mi ngi changé ndaxte yi nekk ci bureau yi ba fàtteetuñu seen alxuraan. Mhm. donc parents yi nañ def très attention te ñu xam ni que euh, alxuraan may mujjee. su ma ñëwee ci sa laaj bi am solo bi. mooy weeru koor weeru promotion weeru promotion la. man du ma xale du ma euh, guney daara donc man promotion bi. dama ko dama ko jéem a natt li nga xam ni man ak sama moroomu jigéen ñi noonu lañ ko mën a comprendre. Mm-hmm. damay wax léegi sama xarit yi mun na tey euh, basin mu ngi jaar mètre dix mille. Mm-hmm. bi lay nekk ci mois bi bazin bi mu ngi koy yaa ngi koy jëndee mille francs mm-hmm. bu weer bi deewee bazin bi day ñëwaat mètre dix mille. ñëpp di nga def tout lépp xaalis def tout ñaan fexe ba am sa basin mettre mille francs ko mhm. jënd ci lu bare balaa promotion bi balaa promotion bi jeex mhm. ndax nga mën a dem jaayaat nga am ci ngin maanaam soo ko jaayaatee li nga ci am ci alal moo ëpp li nga su fekkoon da nga ko jëndoon mettre dix mille balaa mhm. promotion bi di jeex seetal loolu rek yàlla dafa ñëw nag mu ne weeru ramadan weeru promotion la mu ne ku wóorul benn fan di nga toog ñaari weer Euh, waroo benn fan te tey ko dinga nga toog di nga ko fay ñaari weer. Mm-hmm. yu yu yu yu yu suivi yu yu mm-hmm. maanaam lu la yàlla di fay ci benn ci benn fan ci weeru koor. Mm-hmm. il faut nga woor fay ko ñaari weer pour nga am ko. léegi li nga li nga li li nga soo wooree tout le mois weer bi yëpp. Euh, gënee li ngay am bu fekkee da nga def euh, benn fan ñaari weer mais loolu dina nekk juróomi at. Mm-hmm. maanaam soixante euh, juróom juróom benn fukki at euh, weer juróom benn soixante mois waaw soixante mois mm-hmm. maanaam li nga woo juróomi at bés bu nekk yu tegloo mm-hmm. pour mun a am li la yàlla di fay ci benn weer waaw loolu moom ñi ñi am marché xam nañ ko wala ñi am ay ay ay euh, ay compte d'épargne xam nañ ko di nga am di nga am vingt cinq chaque fois chaque fois chaque mois nga denc vingt cinq mille balaa mu nekk alal mu nga ko denc mën nga ko am ci benn marché. Mhm. nga am benn marché yi maanaam nga am ay millions. Mhm. am loo xam ni euh, soo ko doon denc weer bu nekk balaa nga koy am dina mat juróomi at wala fukki at. Mhm. maanaam moo tax ma nit yi ñu mën a xam ni su waxee promotion la nañ ko jàngee noonu. juróomi at noo ko woo yàlla xam nañu ko mënuñu ko woor juróomi at yu tegloo. te yàlla dafa bugg jullit yi dugg na moo tax dafa bugg dafay dafay dem bag maanaam maanaam bu ñu lay misaalu bag dafay def daf lay won daf lay won euh, euh, sujet yi mm-hmm. wala naka lañ koy defee wala da dafa bëgg nga réussir mm-hmm. daf la koy yombalal dafa bëgg jullit yëpp mujjee àjjana mm-hmm. moo tax mën la weeru koor bi su ma pour li mu leen di fay di ngeen ko jaamu juróomi at di ngeen woor juróomi at bés bu nekk yu tegloo man nag dafa leen ma ko ci benn weer mu fay la lu lu lu day noonu wala lu ëpp loolu ndaxte dix derniers jours yi encore daf koy ful maanaam daf koy ful dafa bëgg vraiment que ñun jullit yi nu ñu mujjee àjjana mhm. waaw ku la yéene jàmm vraiment nu ñu du nu am tuuti nag euh, reconnaissance ndaxte des fois nit ki def la def la dara nga ne ki li mu ko defal yëpp xool li mu ma fayee mhm. waaye ñun lu ñu yàlla defal ak lu ñu mhm. koy fayee ñun duñu fayul yàlla moo tax nit yi duñu fay nit ki suñu bëggee nit yi reconnaissant ak ñun nañu nañu reconnaissant ak Dieu. jërëjëf waaw am na solo am na solo jërëjëf jërëjëf soxna sa Nafissatou ci misaal yooyu nga xam ne moom nga ñu ko indil mm, ndaxte noonu mooy am njàngale aussi kenn ku nekk ca lam nekk ca lay joxe ay exemple am. yonent yàlla Souleymane ba ko picc ma di misaal dafa wax ne eh, suñ borom mi nga xam ne mooy génnee fepp yi ci suuf si ndax picc moom li mu xam mooy gës dara dara génn mu cof ko kii misaal te nekk ca tool ya day wax ne eh, boo bayee boo amee nangam boo amee nangam ci loolu lay misaale ki nga xamante ne nag dafa nekk ci jamono ji di dox ci yi moderne yi nga xam ne moo am moom itam buy misaal day misaal ci lu jëm ci loolu moo tax fi ñu nattal promotion ak ni ñu ko nattale eh, maanaam yaatu na te mën nañ cee déggee lu bari eh, fi may dellu siwaat ak Cheikh Mamadou Makhtar mooy fi nga xam ne ci lañ nekkoon mooy ñun tey bu ma doon laaj ñaan ñun ñooy ñan eh, ci biir njàngale mi mooy ñun ñooy ñan parce que souvent da nga naan li war a leer leer na waaye ndax ñun comprendre nañ ne affaire bi leer na ba tey ndax yonente bi alayhi salaam bi mu fi jógee yëkkati na loxoom laaj ndax li ma yàlla yónni woon matal naa ko ñëpp ne ko matal nga ko kon moom mat na waaye ñu dem ba nëgë ni jullit di ci àdduna bépp mel na ñu gëlëm di di di tuñ tuñul ba xamee danga naan daal day mel ni kañ guñ taalal làmp du xam fan la war a jaar Cheikh Ahmadou Makhtar yow loolu noo koy jàngate <laughs> waaw sëñ Mbàkke mbir mi dafa yéeme xam nga wax naa la ko sànq mm-hmm. lépp rek danga koy teg ci alxuraan mm-hmm. suñu borom leeral na lépp mm-hmm. yonent bi itam moom it matale na lépp ndax euh, yàlla suñu borom dafa afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun mhm. muy aaya bu am solo mhm. bu am solo wallaay aaya boobu dañ ko waroon teg mhm. waxtaane ko suñ ku mag ku toll ni suñu borom bu dee ba jël aaya bu mel nii muy questionnement mu ne yéen ndax da ngeen yaakaar ne man dama leen a sàkk sans objet objectif amul. daf mm. ma neex rek ma sàkk leen rek rek rek. Mm. ngeen taxaw. Mm. yàlla yàlla yàlla posé question bi. <laughs> ba ba noppi itam mu teg ci ne ndax dangeen yaakaar ne bés du ñëw ngeen dellu ci man. sëñ Mbacke. te xam nga aaya bu mel nii. bu mm-hmm. buñ ko tegoon ci penc yi waxtaanee ko. Mm-hmm. kenn ku nekk da woote sa responsabilité par rapport ak téere. dëgg la. Euh, nga xool nag yow lan nga def. Mhm. la fi mag mi bàyyi woon. Mhm. ndax bu ñëwaatoon ci circonstance bi mu la fi bàyyee woon. Mhm. bu la fekkee ni nga toogee. nooy def. am njàngat la mu xóot. am njàngat la. ndax yow bu dee ab taalibee nga sëriñ bi la fi bàyyi woon bu ñëwaatee fekk la fa nga toog. ndax da ngay wat wala noonu noonu noonu nga koy recevoir. bu dee ab euh, oustaz la sa mm-hmm. oustaz bi nga mm-hmm. xam ne dëddu na la bu ñëwaatoon fekk la ci jamono jii ñuy mm-hmm. waxtaan ndax ñeme nga mu fekk la ni nga toogee bu dee sa waajur la bu ñëwaatoon tey ndax doo rus ci mu fekk la ni nga toogee bu dee rasulullahi sallallahu sa wa sallam la moom it bu ñëwaatoon léegi woote ndax yow di nga wuy ndax am na ñoo xam ne ñi bu ñu wootee boo fa wuy jee it bokkoo fa dëgg la dëgg la ndax indiwoo mandarga yee tax nga bokk fa li ñuy tuddee droit d'accès doo ko am boo amul droit d'accès nag am na foo xam ne mënoo fa àgg mhm. te droit d'accès li ko li la koy may mooy jikko yi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam tënkoon na ko nga tënku ci mhm. boo ci génne rek bokkatuloo mhm. kenn du nit moo la ciy dugal mbaa moo la ciy génnee yaa ciy dugal sa bopp mhm. wala nga génnee ci sa bopp mhm. yaa ngi ciy duggee ci nga respecté li nga xam ne moom la suñu borom yaa ngi ciy génnee ci nga ñàkk respecté ñàkk sàmmonteeg li nga xam ne du doon sa coobarey bopp waaw nekkul yaay tànn di dunde ni nga bëgg a dunde ci àdduna waaye liñ la tànnal ba mu leer ci noonu ngay dunde noonu ngay dunde ndax dañu xam nga li ñu tuddee légitimité. Mhm. loolu moo ko indi. Mhm. maanaam bu ñu nee ñun ñëpp voté nañu constitution Sénégal. Mhm. léegi jeex na daf ñoo tënk ñoo tënk dëgg la. boo xeesee ba nekk jullit itam. dafa am loo xam ne da laa tënk. mais problème bi mooy nit dana nekk jullit te du xam constitution boobu ku tënk mooy lan. moo tax ñu war ko jàngi. ndax am na foo xam ne fii suñ digganteeg téere bi. tollootuñu foo xam ne fii am na làmba làmbaatoo. ndax ab jullit waaw. awalu ma yajibu alal mukallafi lan la ci li waaw xanaa tax fiwu imaan yi rek moo ci war a toog munoo nekk mukallaf nga am sa responsabilité di répondre de tes actes ni ñu koy waxee te yow am say mbiru diine yoo xam ne da nga koo bëgg a sëf keneen dëgg la déedéet mun mënta ne déedéet mënta te yow sa dépense safoo ko kenn mm-hmm. sa njaboot gi nga xam ne yaa ngi koy yor safoo ko sa kenn mm-hmm. biir kër gi itam bëggoo ko sëf keneen waaye sa mm-hmm. diggante ak sa borom moom sa diine da nga koy dénkaane nga ne mbàkke si la laa ko sëf moom na ko gérer dëgg la te am na ci loo xam ne dañ laa wax ne la yaa ko war a seereel sa bopp da nga ko war a xam da ko war a xam kon seex bi bu ñuy wax euh, tey ci weer wi ne mooy weeru alxuraan damaa jàpp ne occasion la woon kon ci ñu delluwaat ñun ci li ñu tënk ci alxuraan suñu digganteek moom. Mm-hmm. parce que alxuraan daf mel daf bari ay aspect mm-hmm. am na côté boo xam ne côté barkeelu la kenn du ko nattable barke kese la mm-hmm. am côté boo xam ne côté musluwaay la kenn du ko nattable muslukaayu kese la mais am côté boo xamante ne nii système de vie la maanaam nit ki war a dund ci àddunaam lépp alxuraan daf koy accompagner ci lépp lu muy dugg ak lépp lu muy génn mais ñaari côté yi lañ gën a favoriser ci côté bi ma mujj a wax mooy côté barkeelu bi nit ñi mën nañ ñaanal ma fu ñu gisee sëriñ dañuy jàpp ne daa war a ñaan mën nañoo wax ne bindal ma ma takk wala ma naan ndax jàpp nañ loolu waaye nag alxuraan topp ñu ci biir biro bi topp ñu ci biir kër gi topp ñu ci circulation bi moom lañ desal ginnaaw xanaa looloo tax dund gi xaw a xaw a karaj ni waaw xam nga xam nga mbir mi loolu la mhm. maanaam sëriñu daara bi moom moom loolu la mën mhm. li nga ko ñaanloo boo nee sëñ bi ñaanal ma li mu mën mooy ñaanal la ñaanal la dëgg la boo ne koo ñëwal tuddul ma sama doom li mu mooy tudd mhm. waaye boo delloo ba ca kër ga yow ak soxna seek doom ji yaa fa mhm. nekk dëgg la foofu it dafa am loo war a jël ci téere bi nag doxal ko nga doxal ko <laughs> xam nga dafa am ñu bëri léegi Sénégal macha allah ndeysaan bu seen xew jotee dañuy woote ndongo daara yi ak sëriñu daara ñu wàcceel leen kaamil ndeysaan sëriñ bi ñëw tudd di nga ci gis léegoo léeg sax sëriñu daara boo xam ne dina ñëw ki nga wax mm-hmm. tudd bi mu tekki ko de façon sociétale dëgg la ne tudd bi lii lay tekki mm-hmm. lii lay tekki responsabilité la yow am na mm-hmm. nit bu nekk sa wetu kër xëy na amul doom yàlla fexe na ba moom mu jël yow jox la doom jox la responsabilité nga war ko sàmm mu expliquer ko ba mu leer ci xelam waaye su delloo moom day daal di ne fa ñukk li nga xam ne waxoon nañ ko mu doxal li nga xam ne moo ko ne maanaam ne nii garantie bi nga xam ne rasulullah sallallahu alayhi jëloon na ko discours bi matale mission bi. Mhm. am na. Mhm. yow Mbacke da ngeen di wax premier janvier ba 31 décembre. te li ngeen di wax leer na nañ. wallaay am na ñu leen fi jiitu woon. Mhm. te bu ngeen fi jógee yàlla na yéexit danañ dinañ fi ñëw. wallaay waaye maanaam lépp a leer na. dëgg la waaye jël engagement wu nit ki. wane ne moom li mu déggee ren. ci weeru koor gi. day fas yéene loolu mu doxalee ko biir kër. ndax bu ñuy wax rek. te amul application amul njëriñ. Mhm. loo gis code soxna si wax na fi léegi waxu code de la route. Mhm. mais buñ ko bindoon voté ko assemblée nationale. Mhm. te kenn pra appliqué wu ko it du am njëriñ. da nga koy jël boo ñëwee foo xam ne ab alkaati new fa kenn new fa farouge ne fa. nga fàttaliku la la code ba waxoon nga appliqué ko. alxuraan yi tamit noonu la. boo gisee jaamu yàlla gu mel ni koor am solo. mooy ne suñ borom day jàpp ne yow yow ak moom kese la. keneen new fa waaye yaa ngi fàttaliku ay digle suñ borom. di hmm. moytu ay tere suñu borom. Hmm. moo tax koor am dayo bi mu am ci diine. dëgg la hmm. dëgg la moo tax koor am dayo bi mu am ci diine Serigne Mouhamadul Makhtar jërëjëf tegal foofu sa baaraam yaa soxna na fi surtout xam naa yéen ñaan ñëpp borom yitte ngeen waaye du ma leen yeeweegul damay dem service commercial rek incha allah dégtal mbokk yi lenn ci publicité yi suñu partenaires yi nga xam ne ñoom la ñuy àndal jotaay bi te dellu bu ko defee ñu wéyal fi nga xam ne moom la ñu yamoon jombu tax nag dangeen ma may bañ tënk xibaar yi bitim réew ba noppi ñu daaneel laajte wi nga xam ne moom lañ yëkkati woon ñu door a ñu leen a yeewi ndax yéen teg leen loxo yombut moo tax bisimilah ñu dem te ñëw. xamante ne ñooy waa commercial jërëjëf partenaires yi nga xam ne ñoo taamu jotaay beeg waxtu wi ba jaarale fi seen yëgle ngir bëgg mu siiw yàlla na ko suñ borom def te defal leen tawféex ci seenub yëngu mbokk yi kon xam naa ni ñuy def rek mooy wéyal jotaay bi bu ngeen xoolee seen montre daanaka ñetti simili rek moo tee ñu àgg ci 11h te mooy doon waxtu wi nga xam ne ci lañ leen di indil xibaari bitim réew yi war cee ànd suñu njaatige Aliou Jara ak El ak ci wolof bu ko dellu si ñëw ci suñ jotaay bi nga xam ne mooy annuur ci xaaj bi nga xam ne mooy doon xaaj bu mujj bi tey ñu dalal suñ mbokk Cheikh Mamadou Makhtar Ka ak suñ mbokk soxna Nafisatu Ndiaye docteur ñoom ñaar ñëpp di ñoo xamante ne ay gëstukat lañ waaye itam ci euh, xëy na mën nañ leen woon a xool buñ doon classé réew mi nekk équipe bu futbal féetale leen ci benn euh, geneen làng gi waaye ndekete yoo mm, réew mi mooy réew moo xam ne dafa am ay jagleem ay xososiye yu mu am mm, ci par rapport ak yeneen yi ci def naan lii rek la jàng jàngut lii waaye ndekete da nga gis nit mu toog euh, costume mu karawaatu ndeke raw na usaas yu bari ndax ba jàng alxuraan ote jotee jàng na ko teewul mu boole koo jàng leneen ak leneen ak leneen ba mën a ñëw toog ci penc mi di wax soxna sa tuddee nga léegi seex Cheikh Mamadul Maxtaar bi muy daaneel fi nga xam ne moom la doon wax am na aaye sax jumma joxoñ ne aaya jooju doy na sëkk am njàng muy af xasibtumu annama xalaxnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaxuun suñ borom nee na ndax doomu aadama dafa yaakaar ne dama koo bind te dara taxut loolu rek la dama ko bind te dara taxut maanaam bàyyi ko fi rek muy fo defe naa nit dana def dara ñu ne waaw lu tax nga def lii am na lu tax mu def ko même su fekkee bànneex la ci amoon sax dessin ko ci mu fo sax am na lu tax mu def ko li tax yàlla binduñu wàccee ñu ci kaw suuf nañu représenté leen ma fii wuutu fa di doxal kaw suuf nit mën a war ci kaw ñay ak ni ñay amee doole nit mën a tëral nag rendi ko ak ni nag amee doole te du mujj fenn suñ borom kon am na jagle yu mu ko defal ndax doomu aadama xam na loolu loolu mooy laaj bi nga xam ne moom laay laaj waaw euh, doom pour mu xam ko dañuy ñëwaat rek ci ñàkk xam bi. ñàkk xam gi waaw. dafa mel ne benn problème rek moom nga gën a am soxna Nafisa du mooy ñàkk xam. waaw ñàkk xam ndax lii ti ngi wax ay aaya te aaya bi du ñu xam lan lay tekki. Mhm. maanaam ñàkk xam dégguñu arab. Mhm. maanaam jànguñu langue arabe. da ngay mhm. jàng alxuraan te alxuraan bi xamoo lu mu la wax. mënoon te mënoon nañ ko jàng. mën nga jàng docteur jàng ingénieur jàng mécanicien mais nga ñu jàngale la arabe ni ngay làkkee français. di ko làkkee anglais war nga ko mën a di di làkkee noonu arab boo déggoon arab di nga dégg bi suñu borom di wax mhm. mais yaa ngi wax loo xam ni tey mën nañu wax chinois mhm. ma répété ko mhm. fekk xaw ma donc ñun suñu problème mooy lu lu yàlla di wax nit yi xamuñu ko te jéemuñu jéem xam lan lan lan la yàlla wax lu dul lu la ustaas bi wax rek loolu ngay tënku lu la ustaas bi wax loolu ngay tënku mais ñàkk xam boobu moo moo indi moo indi problème yooyu yëpp yi ngay yi yi ñuy junj sànq ba léegi am na solo jërëjëf xam naa bu ñu demee tënk xibaar yi incha allah bi bitim réew yi ba noppi dinañ ñëw gën a yaatal tomb boobu nga xam ne ci lañ nekkoon kon ci kanam tuuti ñu dem ak waa rédaction bi wàllu xibaar yi bitim réew yi dellu si waat jotaay bi incha allah ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci Sud FM seen rajo rawatina seen jotaay bi di An Nour jaajëfal Aliou Diarra aj Malick Ndiaye ci tënkum xibaar yooyu soxal wàllu bitim réew ak yi nga xam ne moo ci aju jaajëfalaat leen bu baax dellu si ak yéen ci jotaay bi nga xamante ne ci lañ nekk ak yéen diirub boobaak léegi jaajëfal bu baax baax suñu sponsor bi ñu àndal di waa Bonis di bég ci ñoom bu baax di leen ñaanal suñu borom defal leen tawféex ci yooyu nga xam ne moom la ñuy yëngu ci njaay maak njënd ma ñaan suñu borom gën koo yaatal xam naa ne waxtu wi ñu daan ànd ak auditeurs yi ci wàllu siyaar moo nekkoon 10 heures jëm kaw waaye tey jii dama ñoom dalal ay yoo xam ne dañoo ñëw ba ci biir jotaay bi fas yéene àndoon ak ñun waxtaan yoo xam ne mën nañoo amal ay njariñ bu ko defee damay ñëw ci ñoom euh, ci ay minutes yu néew ñu tënk yi nga xam ne moom lañ doon waxtaane bu ko defee nag auditeurs yi mën a jël seen wàll ci li des ci minutes yi ci 88 628 98 98 suñ ñaari auditeurs yi nga xam ne ñaari soppe yi borom xam-xam yi nga xam ne ñoom lañ dalaloon tey eh, di seq ñoom waxtaan wi kenn ki mooy doctor docteur eh, satu Ndiaye madame Ba mm, nekk professeur jàngalekat ci université Cheikh Anta Diop moom itam ñëwoon fii tey ngi doon ànd ak ñun ci li nga xam ne mooy waxtaan wi indil ñu koor indil ñu ci am njàngale mu xóot ku ne xam na ne bu ma ko présenté ci tur yooyu liñ mën a waxtaane ci moom ci koor bari na ndax wax nañ ne woor leen wér ku yëngu ci wér-gu-yaram mën nañoo wax ci diggante koor ak wàllu wér-gu-yaram lu baree baree bari waaye itam bu ma ko waxee mm, aw turam di jigéen doon mag ku ne xam na ne ab yar dañ ci xaar jigéen dañ ciy xaar ndey laa bëgg a wax rek ci société bi ak jeexital yi nga xam ne moom lay am Cheikh Modou Makhtar euh, Ka nekk moom itam kilifa doon koo xam ne itam xam naa la muy liggéey ak fa mu féete jotaay bi mën na koo bañ a laaj ci ma di ko leeral ndax itam léeg-léeg loolu mbir mi laaj ko waaye doon koo xam ne mën naa wax lu baree baree bari ci li ñu séq di koor gi di mbirum diine ji waaye itam di yarub Euh, yarub mag ñi ndax ab gëstoom ak ay jeexitalam ak yitte joo xam ne moom la ci def ñoom lañ doon seqal jotaay bi soxna Nafisatu yow laay jox kàddu gi bala maa dellu ci Cheikh Mamadou Makhtar ngir euh, ñu bala ñoo jël auditeurs yi ci ligne bi bu ko defee ñu tënk li nga xam ne moom lañ doon waxtaane euh, ci suñu jotaay bi di An-Nour junju nga wàllu jikko junju nga wàllu jàng junju nga wàllu promotion bi nga xam ne moo am ci weeru koor waaye itam war nañoo ñëw ñaari minute rek ak yow ci comportement yi nga xam ne moom la waajur yi di am ci kanam njaboot gi responsabilité yi nga xam ne moom lañ am kenn ku nekk am ko ci njabootam léeg ñu jàpp ne man naa baax rek man mi yaay daal wax nañ ne jigéen ay cëram wët a feeñ man samay cër du feeñ wax nañ ne damaa war a julli ji baay bi moom buñ noddee kenn di ko jiitu ci jàkk ja waaye suñu doom moom dañ leen di boyal rek bàyyi leen jàpp ne loolooy bëgg doom wala lool mooy civilisation wala lool mooy li jamono laaj soxna na fi satu waaw oustaz Sall euh, si la mooy lu am solo li nga laaj ndaxte euh, loolu dañuy ñëwaat rek si jàngale ndaxte jàng du question da xam-xam kese. Mhm. jàng exemple la ci am solo. Mhm. exemple mooy nit ki dafay def nga gis. ndaxte mhm. xale yu xale yu bari ñu ngi toppandoo tey boo nekkee sa kër wala boo nekkee feneen yaa ngi doxale nu sa yaay doon doxale wala yaa ngi jéema a doxale nu sa baay nu nga gis sa baay doon doxale loolu nga yaakaar ni sa jëkkër noonu la war a doxale maanaam bu bu fekkee da nga nekk da nga nekk jigéen jigéen euh, dafa yaatu euh, jigéen chaque fois dañuy wax si si tubaab jigéen mooy euh, ñu ngi wax si tubaab mère mère. ci ci tubaab nag mer mooy géej. Mhm. maanaam dafa yaatu. Mhm. nga wax a téye lu nekk. te kenn warul xam sa mer. Mhm. nga war a dundal lu nekk am nga coof am nga rëkkee am nga yebooy yëpp yaa ngi yow mii yaay yaa ngi ko war a téye. noonu la ko tubaab waxee ci mer. mer mooy mooy géej. donc boo nekkee boo nekkee jigéen nga xam ne que yow yow yaa war a dalal nit ki. yow yow danga nga da nga am benn exemple boo xam ni di ko da ko war a wax ni ngay solo na sa doom waroo solo. Mm-hmm. waxoon ni ah man de maa ngi sol mais sa doom sama doom lu ko neex lay sol ndaxte sama doom xale la mm-hmm. waaye xale boobu xamoo xamoo ban mag lay nekki bu mm-hmm. fekkee yàlla namm na sax mu nekk mag ndaxte yow at yi nga am da ngay ñaan yàlla say doom am ko mais est say doom dinañ ko am te bi biñ ko amee est-ce que diñ ko tal ndaxte benn bés dafa toog dama amoon benn yëre bu ma soloon ba xam ne loxo bi dafa xawoon a gàtt sa papa ne ma euh, loxo bi dafa ko gën a gudd ba ci suuf ma ne ko ma ne ko nii baax na mu ne ma da nga bëgg sa montre dara mu ne ma ah, da am montre am loxo hmm. ba wane. mais boo amoon montre amoo loxo ba wane xëy na sa xëy na li nga sa yére bi dina gën a gudd. Hmm. mooy daal nit ki euh, sa doom bu ko topp rek si lu ko neex yooyu yaa ngi nga am responsabilité balaa nga am sa responsabilité mooy nga xam sa responsabilité xam li nga war a wane maanaam on revient toujours si xam bu fekkee yoo xamoo li nga xamoo li nga doon xamoo sa place xamoo responsabilité bi nga am ndax ndaxte yàlla dafa ko doomu aadama ay ay doomu yàlla lañ. yow da nga nekk si yaay pour pour euh, alalu alalu suñu borom bi nga sàmmal ko ko comme ni mu ko buggee ndaxte ñun suñu ay dërëm ak suñu ay ñaar dërëm ku nekk yaa ngi koy denc fu sori. Mhm. sa téléphone fu nekk yaa ngi koy denc fu sori boo amee benn gramme wurus fu nekk yaa ngi sori waaw alal bi la yàlla jox muy doom muy doomu aadama alal boobu aussi war nga ci waslu ak mhm. papa yi aussi li may jeexalee mooy papa yi aussi ñoom ñoom ñoo war a yar seen njaboot yar seen jabar seen soxna. ndaxte tubaab dafa ni l'éducation des filles se termine chez le mari maanaam yow sa yar doomu jigéen ñu ngi koy mottali si kër jëkkër yi loolu mën nañ ci jàng lu bari xam naa duñ ko mën soj mottalee fii mooy xale lañu xale mooy sëy waxuma la xale bu ndaw mais comme da ngay yar warul nekk mag trop moo tax aussi xale yi aussi xale yu jigéen yi nga xam ne léegi dañuy bugg ñu jàng jàng bu sori ñu doog am jëkkër nañ def attention ci loolu ndaxte fi ñoo ko mottali ay éducation dafa fekk koo xam mun na dégg éducation ñu goo ñu aussi nañu mottali seen seen diine jabar li nga xam ni que ñoom dañuy wax mottali seen jiime jabar ba pare jabar ji mun na ko eggali ci ndaw yi ndaxte ay borom kër yu bari ñu ngi ñu ngi julli ñu ngi dem ci jàkk ji ñu ngi woor ñu ngi dellu ñu ngi yeewu fajar am xale bu am 17 ans ci biir kër gi am xale bu am vingt ans ci biir kër gi am xale bu am 16 ans ci biir gi yërëm nañ ko duñ ko yee ndaxte nee nañ oh, dafa metti wala fajar yi dafa teel wala bu ñuy boole teel a julli fajar teel a nafar alxuraan ak dem jàngi. jërëjëf waaw am na solo jërëjëf soxna na Nafisatu ci tomb bu am solo boobu wax di yàlla tënk nga ci lu baree bari loo xam ne mën nañ cee jariñoo lu bari ngir njëkkanteeg waxtu wi dañuy daal di joxaat kàddu gi Cheikh Mamadou Makhtar mm, en tant que koo xamante ne day wax ci ci kàddu ci genn kër ci këri diine yi nga xamante ne mën nañ koo waxee noonu bu ñu waxee fukki fan yi mujj ci weeru koor dañ koy dundal alxames ne tey alxames ji ñu génn maa ngi doon wax ci leelatul xadar goo xam ne ñu ngi koy amal ca Touba amal ko fu bare bari ci réew mi jotoon nañ ci indi ay waxtaan am yeneen i jotaay yoo xam ne ñi ngi ci tey boo demee tey gét ardo fekk sang yi ñi nga xamante ne nii ñoom itam ñi ngi ci ndonol mag ñi te di ci góorgóorlu Cheikh Ahmadou Makhtar nekk kenn ci njaboot googu waaye itam di sàmm ndono loolu te di ci góor góorgóorlu doon ci exemple rawatina nag euh, seen association bi tudd Misbahul Huda mu nekk secrétaire général bi ñooñu itam dañuy dundal weeru koor di dundal fukki fan yu mujj yi euh, kon yaaram ci programme boobu laa bëgg a jox nga ñëw ci ak ñun euh, maanaam nan ngeen koy dundalee ci fukki fan yu mujj yi waaw jërëjëf sëñ Mbacke maa ngi rafetlu bu baax a baax waxtaan bi ak ni muy demee ak laaj bi nga xam ne laaj nga ma ko ci mu jëm ci wàllu Guet Ardo mhm. euh, muy suñu kuréel googu di Misbahul Huda mhm. nga xam ne ñu ngi jële ndigal ci xalif bi di alhaji ay Aysata Ba mhm. ma koy ziar di ziar njaboot gépp di <laughs> ziar euh, porte parole am di Cheikh Aljuma Ba ak euh, maire Guet Ardo ba Cheikh Talibouya ak président Misbahul Huda di Mouhamadou Sadibou Hadrame Ba ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu seqal liggéey bi Euh, Misbahul Huda dafa am liggéey bu am solo bu muy def ci weeru koor wi ci Sénégal gépp nag mhm. ndax dañoo am ay daara fu ne ci biir Sénégal mhm. waane ni nga ko xamee fukki fan yu mujj yi mhm. ci la ñuy gën a baral mbir mi ndax li tax ñu koy gën a baral mooy ngir li nga doon waxtaane yàgg soxna si sànq mooy bañ li nga xam ne moom la liggéey ba yegg si fii ñeneen këf ko te yóbbu ko te loolu yaa ngi koy mën a maanaam dencee rek ñoŋalee rek ci nga am programme boo xam ne bi Mm, xel yi kenn du leen mën a këf ci jamono ji ñu mm-hmm. nekk nii moo tax ba ñun fukki fan yu mujj yi mm-hmm. bés bu yàlla sàkk am na programme boo xam ne def nañ ko mm-hmm. programme yi day dox ci eh, maanaam li tàmbalee ci tafsirul quran bi boo xam ne bi dañ koy ci gét ardo am fa bu mag a boo xam ne bi ko fay def di ko def itam ci bërëb yoo xam ne yu fasanti ko ci biir réew mi ni ma ko waxee sànq ndax bërki démb ñu ngi woon ci golf fii doon fi def laylatul xadri bi nga xamee war nañ ñaar fukki fan ñu war a fanaan euh, guddik ñaar fukki fan ak benn def nañ fa waxtaani diine mhm. euh, ci njiital Cheikh Sidaati Atxaana Ba moom itam muy imam ratib bu Guet Ardo mhm. ñu def ay waxtaan yu am solo ci diine ak ci weeru koor ak ci laylatul xadri ak ci fukki fan yu mujj yi ak mhm. ci ban taxawaay la ci ab jullit da war a am euh, ñu noppee ci loolu itam ca ëllëg ginnaaw ëllëg sa dem nañu sinja itam def fa beneen waxtaan laylatul xadri dem nañu géewul mhm. démb rek ñu ngi woon Guet Ardo amaloon fa waxtaan dajale woon mbooleem soxna yi nga xam ne ñoo nekk Guet Ardo ak diwaan ya ko wër yëpp mhm. di leen waxtaan ci nan la soxna yi war a taxawee ci fukki fan yu mujj yi mhm. ndax fukki fan yu mujj yi li ngay wax nii yëpp programme yi nar a am ci biir semaine bi ak ba fii ak mooy maanaam Euh, xumbut yi xawaare yeeg ne ci waajtaayu korite waajtaay yeeg yëre yeeg kay spécial ak modd korite sax am na émission am na lu ne voilà waaw ñu ngi ci waajtaayu de ñu ngi ci waajtaayu loolu nag jigéen ñi maanaam ñoo ñu di def loolu ñi ñu gën a soxla mooy soxna yi dëgg la ñu ni tamit ñun dañoo soxna soxla soxna yi <laughs> ndax xam nañ ne soxla soxna yi mhm. ñoom produit la bu raar mhm. bu ñëpp soxla mm-hmm. diine lislaam itam gën koo soxla mm-hmm. moo tax démb ñu dajale la woon ca Guet Art doon waxtaan ak ñoom macha allah ñu def fa conférence bu am solo mm-hmm. euh, fas nañu yéen itam sebi xutaan alarba ji incha allah ci jumaa Misbahul Huda boobu taxawee fa laylatul xadri ànd ceeg ñoom Cheikh Ousmane Sow ak ñi nga xam ne ñoom lañ koy àndal ñëpp euh, bu ñu fa jógee nag daal dee dem Guet Art tëjee fa li nga xam ne mooy weeru ren bi weeru koor gi mu shahr ramadan bi tàllal sëriñ bi loxo mu ñaanal ñu noonu lañ koy defee euh, ci biir réew mi yëpp ah, ne wax dëgg yàlla ñoo ngi ñaan euh, média yëpp jàpp ci ndax itam dafa am yoo xam ne daa jara feeñal bu ñu feeñal yu baax yi léegi tey euh, mbaax dana fa wax ak mbon ba dana tax itam nit dootu am complexe ci wane ak mbaax waaye bu ñu feeñal safaan bi day mujj yàgg ku bëgg a baax it da nga koy nëbbu ndax euh, li ñu feeñal rek ñun dañoo nekk réew moo xam dañoo mën a roy lool boo seetloo yu baree bari ñu ngi koy def te royoo ñu ko yóbbee ay filmoo ñu ko indil ay waxtaankate ñu ko indil ay théâtre ñu ko indil ak ay comportement li mag ñi indi itam muy lu risque bu ñu ko médiatiser noonu mu amal ñu njariñ bég nañ lool seex euh, bi ci loolu nga wax wax dëgg yàlla këri diine yëpp ay exemple lañ waaye waa Guet Art it ay exemple lañ nag ci dundu sunna ak dundu diine ak bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax te eh, mag ñi moom seen dund gépp tagg yonent bi la woon ak kañ seen borom subhaanahu wa taala te loolu desuñ ci ginnaaw ñoo ngi lay bég baax baax ci loolu di ndokkeel waa association al misbaax yépp misbaahul huda eh, ñoom sama turu émission bi xam naa da ngeen ma fayee ko droit d'auteur ndax boo moytud yéen a ma njëkk tudd misbaax depuis 99 nag <laughs> tubaarkàlla man bërki démb rek laa tuddee sama <laughs> waxtaanu fajar yu al ko waxee mm. ñaan suñ borom dëgëral ko te yokk ko wér kon xam rek mooy xaarandi auditeurs yi ma téye leen rek ngir wax ak ñaari auditeurs wala ñett ñoom itam ñu xool ba xam waxtaan wi ñu seqoon ci subaak léegi ñoom nan lañ koy gisee ànd ci yéen 88 628 98 98 wala 33 841 22 33 33 825 18 30 ngeen ñëw jokkoo ak ñun ci jotaay bi soxna Nafisatu Ndiaye mi ngi ni toog docteur euh, dend ak Cheikh Mahmadul Makhtar Ka ci seen émission bi nga xam ne mooy An Nour mbokk mi salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw euh, Oustaz siyaar nan de. jërëjëf jërëjëf kan la. loolu waxtaan bi rafet na trop Abdou Karim la ku la nuyoo seede. Abdou Karim mm, dégg nga tey kilifa yi nga xam ne ñoom lañ dalal ci An-Nour noo gisee. waxtaan bi nga xam ne moom kontaan nañ ci docteur ci cheikh bi. Mm-hmm. ndax waxtaan bi matala jàngati leer na nañ ñun daal ñu dañu gën a góorgóorlu rek. jërëjëf. xam naa ni incha allah dina baax quoi dañ doon rafetlu waxtaan bi rek. jërëjëf dem ziare waale si weer bu tedd bi nañu gën a góorgóorlu def suñu baax rek ndax weer baa ngi dem te moom macha allah daal macha allah. jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf Abdou Karim waaleykum salaam wa rahmatulah soxna na fi sa tuddee nga Abdou Karim moom ab polomé la kon ci li ñu doon wax ci wàllu jàng moom mi ngi ci beneen fànn ne ci métier yeeg yooyu waaye teewul muy bàyyi xel waxtaanu diine yi. waaw waaw wax na dëgg ndaxte plombier aussi métier la mhm. lépp looy jàng rek métier la mhm. waaw ndaxte fu fu nekk rek suñu suñu suñu bàyyiwul islam ci ginnaaw rek macha allah. am na solo Cheikh Mamadou Makhtar am na mbokk mu ne ci biir maanaam ma bàyyi nga dalal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bismillah bismillah bismillah sëñ Mayoro Cheikh Mamadou Makhtar mi ngi lay dalal waaw ah, maa ngi koy delloo nuyoo te di ko oustaz sa gan yi am na ah alhamdulilah kon yaa ngi doon topp jotaay bi. Ah, a topp. tey nag kenn ku ne ruq bi nga nekk laa la fekk ki génn léegi ab polomé la yow looy def. ah man ab commerçant la. yi moom nuñ def ak waxtaan wi ñoon waxtaan léegi ci wàllu jàng ci wàllu yar ci wàllu li tax yàlla binduñu ak jeexitalu liggéeyu mag ñi. waaw xam ma ko gisee mhm. xam nga eh, ñoom bi ñuy dugg déggoon rabbi israh li sadri comme ni leen koy neexale yéen. ndeysaan yéen ustaas yi waaw. waaye liñ ci wax. génnul xaala laaw génnul xaala rasul dëgg la moo tax daara ji dafa yaatu daal mm-hmm. surtout maa ci soxna ci wàllu xam-xam bi mu doon waxee insisté na di ba tàyyi nit ki dafa war li muy def lépp da ko war a xam mm-hmm. waaye waxtaan bi daal am na solo loolu am na solo daal ñu ngi kontaan bu baax a jërëjëf jërëjëf xam naa ci am na solo waaye kontaan naa ci ñoom ñaar ñëpp daal. kooku Mayoro Fall la tudd bañ dooree jotaay bi ba léegi koy déglu dégg nga muy woote nee na bi ngeen di tàmbali xëy na defu leen ni usaati def allahuma salli def noonu bañ jàpp ne ab waaraatikat la waaye li ngeen wax lépp génnul daara ji nooy jàngate ay seetlu mu def ci waxtaan wi waaw xam nga ñooñu nag euh, <laughs> émission boo gis dafa am ñoo xam ne ñoo ko gën a maîtriser. dëgg la ñoom ñi nga xam ne ñoo koy déglu. Mhm. ñoom bu doon noté ñoom ñooy noté émission bi ndax ba mu tàmbalee ba léegi xëy na ñoom euh, ñu ngi koy topp. Mhm. xanaa di rafetlu rek ñoom topp gi nga xam ne ñu ngi koy topp. Mhm. te di xam ne ñoom ni ñuy jàngatee ci ñii fi toog. noonu la itam ñii fi toog di jàngatee ci ñoom. dëgg la te ñoom ñi nga xam ne ay fidèles auditeurs lañ ci émission yi ak ci rajo bi yëpp. ñoom kuy déglu rajo bi xam nga leen. xam-xam rek la ñuy wax. dëgg la dëgg am na solo mbokk mi salaamaaleykum maaleykum bismillah. Mbacke ñu ngi leen di jërëjëf yaaram. Mamadou Kébé laa tudd maa ngi dëkk naka waa Guédiawaye. ñu bismillah bismillah Mouhamad yaa ngi doon topp jotaay bi. maa ngi ko doon topp a baax. dégg soxna Nafisatu ak Cheikh Mamadou Makhtar. tey ñoom lañ leen indiloon ci annuur ñu indil ñu leeru xam-xam gu bàyyi ko ci seen i dënn bokk nañ kook ñun. Mm-hmm. yow noo ko jàngate. am naa xam-xam tamit xam nga wax bu neex bu jógee ci ci ci gémmiñ ci xol bu ci xol xol bu rafet day tàgg. dëgg la. dañuy daa fekk ni xam nga jamono ji ñu nekk ni man dama saa su ne damay di wax ni maam Ousmane Touré dañ ñoo sànq. Mhm. déedéet ñoom sànq ñoo sànq suñu bopp ndax ñu ñoo dem fekk ci leen seen terrain di footballé. Mhm. ah Ousmane Touré ñu ñoo dem fekk leen si ñu bëgg-bëgg ci ñoom ci li ñu aadoo ñoom ci li ñu cosaanoo. Mhm. ñun ñu bàyyi li mu doon léegi nag bu bu moom dafay yokk. dëgg la parce dëgg la mais ñu jotaay yu mel dafa am solo lool lu solo sax mooy mhm. dana tax am na ñoo xam ne suñu nit tey am na fu ñu déglu waaye mën nañu ubbi seen rajo dégg parce mhm. que léeg-léeg waxtaan day am am foo xam ne di nga am invité ay doomu aadama mhm. mu am benn impact bu mu def boo xam ne yow mi leen invité sax xamuloo ko dëgg la mais wax dëgg yàlla rafetlu nanu ko jërëjëf man taalib islam jërëjëf waaw di leen yàlla yàlla yàlla def jàmm yaa rabbal alamin Mouhamed Kebe jërëjëf euh, Cheikh Mamadou Makhtar Mouhamed Kebe indi na tomb bu am solo dégg ngeen jàngat mi yaag soxna Nafisatu lim ñu indil nee na léeg-léeg euh, euh, nit ñi jàpp ne Occident daal moo ñu nax wala coono biñ tege yëpp moo ñu ko tegu ndekete dañoo xamul li ñu am rek dañ koo jàngatu ni ñu ko war a jàngate kenn ku nekk benn baat ci loolu mu wax nu mu ko gisee soxna Nafisatu waaw mooy lu lu cheikh bi waxoon sànq rek mooy choix bi. Mm-hmm. mooy kenn naxuñu ku nekk mm-hmm. da nga ko waaw xam nga occidentaux yi moom. Hmm. mag ñi ñoom du ñu ma sa bàyyi. Hmm. ndax mag ñi ku nekk am nga foo jaar ak ñoom. dëgg la waaw depuis ñoom Serigne <laughs> Touba. wallaay Maladji Malick ñoom fa lañ fi dëgg la dëgg la waaye nag dañoo façon seen i ndigg rek. Hmm. fas yéene jaamarloo. nga xam ne forme xeex bi mën naa changé waaye xeex bi moom du changé. xeex bi moom du changé forme bay changé rek. dëgg la da fas yéene moom lépp lu nar a dox sa diggante ak sa borom. nga jaamarloo ak moom. Ah, macha allah am na solo am na solo mbokk mi salaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. yaa Oustaz Mbacké Sylla. waaw yaaram. waaw man la Mbaye Faye fii si Gàppo. Mbaye Faye naka waa Gàppo. ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah ahlan sahlan Faye bismillah. ñu ngi rafetlu émission bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. di jiital tamit di fàttali ne xëy na jàkka yi ak jumaa yi ñi nga xamante ni bii ñoo ngi doon naafila kaamil bi fan yii yëpp. waaw jamono yi am na ci ñoo xam ne ñu ngi toll ci waxtu tëj ko. Mhm. ñuy ñaan nag yàlla suñu borom lépp luñ ci def ci naafila ak lépp luñ ci def ci ñaan. Mm-hmm. yal na ko yàlla wàcce ay xéewal ci réew mi. amiin yaa rabbal réew mi gënati naa am uh, xel mu dal ci réew mi ndaxte lu toll ni weeru koor. Mm-hmm. ñu ciy jàng alxuraan yematu ci ñu ciy teewlu di ko naafila. Mm-hmm. ah loolu wax dëgg yàlla dal na xel te sedd na xol. jërëjëf jërëjëf kon wane na Sénégal wax dëgg yàlla uh, jaamu yàlla bi daal fo macha allah farataal nañ ko tey pëseefu nañ ci tey taxawee nañ ko nañ ko. ñuy gënee dolli ñaan yàlla na ñaan yi wàcc ci réew mi te bokk kook réew yi ñu wër yëpp alhamdulilah amiin amiin fay ñuy sant tamit sa gan ñooñu nga dalal wallaay ndeysaan ndaxte daf may fàttali ci jamono yi coupe du monde deux mille deux ba waaw bi ñu demee woon ci équipe bi ñu woon waaw am na ci ñi nga xam ne nii xëy na ñëpp bokkuñu woon diine bi ñu nekk sax waaye ñi nga xam ne ci diine lislaam lañ tënku woon waaw bu waxtu julli jotaa woon dañ daan taxaw bokk ñoom ñëpp booloo taxawal fàppe daal di kabar julli ndeysaan ba ci biir sax dégg naa dañ ci amoon imaam ndeysaan kon muy wane ne kon réew mi daal wax dëgg yàlla lépp loo xam ne nii day dundal diine day taxawal sunnas Muhammad rek ñor na leen te lépp luñ nekk ci caaxaan tamit ak luñ mënti doon ak lépp luñ mënti nekkit bu leen tee bu seen waxtu julli jotee dinañ ko taxawal dinañ ko faataal dinañ ko doxee na nam ware jërëjëf ñi am xel mu dal bu baax a baax di ñaanal uh, sa gan ñoom yal na leen yàlla yokkal xam-xam bi te yokkal leen fan wi amin liñ fi waxtaan yëpp yal nañ njëriñ ci doomu aadama yëpp wasalaama waaw jërëjëf mbay fay Gàppo lay woote moom itam dégg ngeen ko sama gan ñu tedd ñi ci duggam bu am solo boobu ak li nga xam ne moom la indi jotaay bi waaw xam naa ne wax naa lu am solo mooy ci mbiru naafila mm-hmm. ndaxte lépp mu ngi dellu ci temps bi nga xam ne mooy suñu jamono ci wàllu weeru koor nan lañ koy jëfandikoo. Mhm. ndax da nga gis koo xam ne kii moom tayal naa naafi la. Mhm. waaye tayalul seetaan match football. wala tayalul seetaan seetaan leneen wala mu dugg ci yoo xam ne kenn dugalu ko ci. Euh, ba tax na ñi nga xam ne ñu ngi taxawee taxawal naafila yi ci biir jàkk yi. Mhm. muy imaam yi. Mm-hmm. ci jamono ji nga xam ne metti na lool teewlu ci biir mm-hmm. suñu jamono ji ñuy dund ñoom nañ leen ñaanal bu baax suñu borom yokk leen kon ñi nga xam ne ñoo ci nekk rek li ñuy mën rek mooy di leen encourager mm-hmm. ñuy gën teew ci jàkk yi surtout ci fukki fan yu mujj yi nga xam ne dinañ ci def ay naafile di ci tari alxuraan bu bu nga xam ne moom la dugg ñu xaaraat keneen ci ginnaawam rek ci 88 628 98 98 33 841 22 33 33 33 825 18 30 ñett numéro yooyu yëpp ku ci dugg incha allah agsi ci jotaay bi ngir mën a indi sa participation soxna Nafisatu dalalal mbokk mi. asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. ñu Paate Jalla tudd waaw maa maa leen ba bisimilah Paate. dañ laa gën a rafetlu waxtaan bu baax a baax. am na solo trop jërëjëf amin amin yaa rabbal alamin kon yaa ngi déglu waxtaan wi dégg nga njàngat mi nga xam ne moom lañ ci indi tey wax nañ ci wàllu yar wax ci wàllu jàng wax ci wàllu comportement yi nit ñi war a amee ci société bi taw te weeru koor ko waaw waaw lépp na solo wante boo ci jël moom ma maanaam mooy hmm. comportement bi nit a amee ci biir dëkk bi ak biir biir jëflante bi hmm. moom dafay manqué bu baax a baax a baax ku ne daal wàllu wa nga yëngu daal hmm. ak mbedd mi nit ñi bopp daal joxante ci joxante cër bi wàññi ko na Mhm. manqué na joxante rapport bi manqué na moom daal fonkante gi des na bu baax a baax a baax ndeysaan waaw fonkante gi des na bu baax a baax loolu yaakaar ne moo waral loolu fonkante googu des ndax loolu dafa ñoo dab wala naka jekk ci ñun la nekkoon waaw waaw waaw loo na naka jekk nag amoon na fi moom hmm. mën naa gën a yokk nag hmm. waaw léegi nga xam ne itam moo koy gën a yokk ñàkk jàng diine ñàkk xam diine bokk na ci hmm. ndax su diggante ak doomu aadama boo xamul àq bi war sa diggante ak doomu aadama mhm. doo xam naka nga koy sàmme doo xam naka nga koy doxale mhm. doo seet ne ni mu ni mu rafete ak ni muy ñaawee yow li nga bëgg ak li sa xel di nekk toujours rek moom nga jàpp ne noonu nga war a doxale te du noonu mhm. doomu aadama dafa fort am solo dëgg la borom wax na ko ba ne wala xatak ram naa bani aadama dëgg la waaw ak yam ca teg dëgg la Paate jërëjëf daal wax dëgg yàlla fonkante bi daal moo def fonkante dafa doon lu am solo am na solo ci gën a baax a baax am na solo ñu ngi rafet waxtaan bu baax dañu am suñu borom mu boole nu dimbali amiin boole suñu koor amiin yaa rabbal alamin asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu yàlla nañ ko bokk defal dégg ngeen euh, mbokk yi kon sëñ Paate duggam boo am solo boobu nga xam ne moom la dugg jotaay bi moom it waaw sëñ Mbacke xam nga weeru koor moom dafa am mm. solo ba xam naa ne ñu ci bari xër gi moo leen ci gën a yóbbu dëgg la euh, xam nga suñu sëriñ su mag yi dañ ko doon def gis nga mm-hmm. Cheikh Sadbou mm-hmm. weeru koor moom daf ci waxoon lu am solo mu ne alhamdulillahi ala shahri hamdan yaduumu bi dawaami dahri walhamdulillahi ala al imaani bi shahri jaa nassan fi alquran ah wallaay ahmaduhu jalla fi kulli yawmin mm-hmm. ali ala imaani bi mm-hmm. shahri sawmi mm-hmm. waaw muy ab xasida bu gudd boo xam ne bi bindoon na ko ci ci weeru koor summa salaatu ah Mhm. mu mu mu bindal bind bu am solo. ci li nga xam ne mooy li jëm ci weeru koor. di ci sant borom nga xam ne mag ñi dañ daan woy weeru koor. dañ ko doon woy mhm. woy ko. ngir li ci nekk xam nga nit bu daan woy nit day do day woy koo xam ne dangay xalaat mu may ma dara wala mu kontaan ci man mhm. ñoom léegi yëg nañ ne weeru koor kon am na lu mu ëndaale ci ay xéewal ba tax ñu koy woy ah, du ñu ngi wax promotion promotion ñu wax ci leelatul xadri mhm. xayrun min alfi shahri mhm. alfi shahri muy lu moo xam ne juróom-ñett fukki at ndeysaan ak ak ñaata at wax nañ juróom-ñett fukki ak wala maanaam juróom-ñett at ak ñett ak ñeenti weer ñeenti weer waaw quatre vingt te Hmm. ba jóge fa te du fa am lu toll noonu ci wàllu at. dëgg la de yow ci génn guddi goo xam ne nekk na ci weeru koor nga mën fi am jaamu yàlla goo xam ne dañ koo nangu. Hmm. ndax mën ngaa dund juróom-ñett fukki at fekk nangu. lu la ci juróom-ñett fukki at dëgg la de. Ah. dëgg la de am na solo kon loolu yéeme na lool soxna Nafisatu. <laughs> waaw dégg nga seex bi fi mu génn de. waaw waaw cheikh bi moom macha allah xam-xam rek lay génne. ndeysaan voilà ñu ci rafetlu vraiment di ci rafetlu auditeurs yi. ndeysaan ñu wane ne émission bi émission bu ñu xaar la. Mm-hmm. émission bu nit yi di déglu la di mm-hmm. topp la. Mm-hmm. ndaxte am na njariñ. dëgg la ndaxte am na njariñ dañuy ñaanal tamit eh, eh, auditeurs yi. waaw ñu émission yu mel nii daal ñu lay ñaanal tuuti eh, Serigne Mbacke. émission bu mel nii. ah macha allah daal. incha allah ñi fi nekk tey sax. Hmm. si dañuy jàng si émission bi. ndeysaan waaw si ñi <laughs> kon ñu jël auditeur beneen bi ak nii ba xam lu mu indi salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ waaw bismillah. maam Thierno Diakhaté. maam naka waa ñaari tali. ñu sant yàlla alhamdulilah bismillah maam Thierno yaa ngi doon topp waxtaan wi. waaw ñu di wax ne seen xam-xam bi rafet na lool. alhamdulilah alhamdulilah. waaw ñun moom jëriñu nañ ci seen wax yi ñu doon wax. Hmm, jërëjëf. ndax ndax dañ koy teg ci ab xam-xam bu. waaw waaw boo xam ne ko dégg rek xam na xam nañu jàngaleen seen ñu xam suñu tegal. dëgg la ci yoon la. dëgg la waaw man nag li may ñaan nag mooy comme wàllum rajo yi. Hmm. waaw ñoom daa mel ne por bi ni mu ciy defee diine ji ni mu ciy safe daal waxtu julli bu jotee nga xam ne waxtu julli na. Hmm. boo xasee ba jàll nag man du ma déggati noonu sax suñu benn rajo. ndeysaan loolu de man ma mën a loolu. kii maan la de bëgg naa daal yéen ñi nga xam ne nag yéen ngi ciy liggéey yow suñu bàcc bi suñu Aliou Sall hmm. ak ñooñu nga xam ne ñoom la daal ñëpp ñu def si benn kii ba am xool loo xam lu waral lool ndax Sénégal moom quatre vingt dix huit quatre vingt dix huit pour cent yëpp ay musulman lañ waaw te koor ba koor ngay dégg rajo yi tamit nodd hmm. ah yenn rajo yi nodd boo man mën nga ko rajo yi nodd te ñëpp ay jullit lañ la ah, loolu dama damay xaw a lool bu koor gi jàllee daal du lenn loo xam ne damay dégg genn nodd genn ay rajo rek jërëjëf waaw te ñu ngi teg waxtu yu nekk loolu daal laa bëggoon ñu kiiyal ko moom am na solo am na solo am na solo jaxate Cheikh Mamadou Makhtar ak soxna si dégg nañ la ma ne dégg naa la mbokk yi bàyyi xel jotaay bi yëpp dégg nañ ko ci joxoñ bi mu joxoñ nee na ci rajo yi ak weeru koor daa mel ne ci la ñuy gën a jox diine ji wàccuwaay waaye bu jàllee rek ñu dellu ci lañ nekkoon euh, loolu am jàngale mu yaatu la dama ci laaj seen xalaat ndax jàpp ngeen ne itam ndax rajo mën naa jàngal nit ki lépp wala day euh, fàttali nit rek ci mu jàngale ni nga xam ne weeru koor itam am ay jagle boppam yu mu am xam naa jagle googu moo ëndaale ñu gën a yaatal waxtaan yi ci rajo yi bis bu set bu ñu waree nag waxtaan yooyu war di mën a ñëw ay bis gu jot li ci des nit di def effort boppam ngir gën cee góorgóorlu man jàngeen ngeen di def ci wax jooju waaw man de maa ngi ziar maam Thierno boobu bu baax a baax. Mm-hmm. di ko ñaanal itam yàlla na ko yàlla nangul kooram. amiin yaa rabbal alamin euh, waaye li mu wax lu am solo la. Mm-hmm. xëy na euh, rajo bi day topp rek programme bi nit ñi di topp. Mm-hmm. maanaam bu ñu nee weeru koor weeru promotion la. ci biir promotion boobu it rajo bi daal di defaraat programme ba gën a méngoog moom. dëgg la ndax am na xëy na bu ni ngeen ko defee yéen jéego bu rëy ngeen ci def ren. am na ñoo xam ne defuñu ko. am na ñoo xam Mm-hmm. yéen nag suñu borom def na ba ren moom tàmbali ngeen lu am solo mm-hmm. li ñu war a def kay mooy ñaanal ñi nga xam ne mooy kilifa rajo bi la muy Baye Omar mm-hmm. euh, di ko ne ñu ngi koy xamal ne li nga xam ne def na ko ren ci diine ji suñu borom gis na ko te dina ko fay dëgg la te moom moo ne képp ku jëf-jëf ju baax dinaa la defal jëf yoo xam ne ñoo gën a rëy li nga def kon fii tàmbali la rek. Mhm. xam naa ne déwéne dina gën a yaatu. te bu ñu mhm. jógee itam euh, ci koor gi xëy na an nuur bi. Mhm. dinañ ci xaat neneen nuñ koy wéyale. mook yeneen émission ndax Sud FM moom. diine ji am na fi solo lool. te itam li soxal auditeurs yi neex leen rek ci lay ci lay xëyee ko. macha allah kon macha allah soxna na fi satu kon xam naa ne. waaw waaw ah li ñu wax daal wax ji rafet <laughs> wax ji benn la wax ji benn la kooku auditeur ba maam Thierno yéeneem la wax dëgg la yéeneem nag mooy yéene ñëpp dëgg la dañu xool nag la ñu dugale diine bi bañ ko ber rek say émission diine parce mhm. que diine mode de vie la li bañ koy wax affaire oustaz la lii affaire u lii la diine bi dañoo xool nag lañ koy wéyalee mhm. ñu koy intégré ci programme yi ñu bañ ko sàkkal ay jour jërëjëf bañ ko sàkkal ay waxtu mhm. waaw am na solo jërëjëf soxna si mbokk mi daa bëgg a bokk asalaamaaleykum maaleykum salaam. maa ngi sant bu baax yaaram. na nga def ak coono. kan la. yéen Ka lañ koy wax. Moustapha Ka Moustapha Ka Cheikh ah. Mamadou Makhtar Ka mi lay nuyu. Moom Moustapha Ka mi salmini. eeyi eh, kay mi salmantema seydi Ka. yetta Allah no feewi. jamma haa haa no ni kam min horaɗe nayi. wallahi jarajef. jaaɓa e wonde yo wallu amen ha fréquence ligguey ɗumen eh. eh, émission day yóbbante ci Baye waaw mu dimbali ko linguère ñu am fa antenne ñu am fa antenne inchallah boo xam ne mën a déglu rajo bi bu ngi ñëw mi ngi ñëw inchallah nuyul ñu waa linguère yëpp am na solo euh, li sedd na xol mm. euh, Baye Omar mi ngi lay dégg te itam loolu yitteem la ndax bu sañoon rajo bi daj kapp àdduna te mi ngi ciy def ay jéego waa si defem Louga ñu ngi bàyyi xel te jooytu woon nañ ko ay at waaye Sud jur Diourbel ñi ngi ñuy bàyyi xel te ñoom itam noonu lañ ko doon jooytoo waa Tambacounda léegi tey ñu tàmbali ñoo bàyyi xel ci seen antenne bopp waa Linguère yéen itam waajal leen barab bi léegi tey ñëw insha allah mbokk mi salaamaaleykum waaleykum xam naa bi mooy doon sax suñu auditeur bu mujj bu ko defee yeneen minutes yi ci des ñu ñëw tàggatoo koog yéen bisimilah bisimilah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah yaaram ahmadou Ka waaw ñu ngi ziar di ziar jërëjëf jërëjëf Ahmadou Cheikh Mouhamadoul Mokhtar mi ngi lay nuyu. <laughs> waaw maa ngi koy ziar. jërëjëf Mouhamadoul Mokhtar waxal ak Ahmadou. asalaamaaleykum Cheikh Ahmad. Eh, mano mbaɗɗa jaam olo barikalla ah. barikal mi weltima émission he alhamdulillah barikalla <laughs> kam na limay wax rek euh, moy de manière mm-hmm. a fait de ce que nous faisons nous a fait de nous mm-hmm. li mu doon wax sànq Oh. allahu akbar dog na waaye <laughs> mu ngi doon junj yu am solo moom itam xam naa ne la tubarkàlla Cheikh Ahmadou Makhtar Cheikh Mamadou Makhtar jërëjëf Cheikh Ahmadou Ka ak sëñ Moustapha moomu moomu eh, jërëjëf olof day faral di wax baat bu am solo ne lu dagg lu ne rek moroom ji lay wër te itam picc bu sabee picc rek a koy tontu waaye nit kenn ku nekk ku wax rek wax ci li nga xamante ne nii mooy li la yëngal da nga jóg feelu ko loolu moom kenn ku ne nangul na ko comme man di doon te itam lii aw yiw rek la bëgg nañ ci seen dugg yooyu jaajëfal leen bu baax damay dellu siwaat nag ci plateau bi ndaxte bu ñu àggee mooy le quart incha allah daal di àgg si ci minutes yi nga xam ne moom la ñuy waaj a te léegi ñu àgg ci eh, laaj bi may njëkk a jox soxna Nafisatu mooy suñu réew mi eh, suñu réew mi compliqué na eh, compliqué na gi mën naa doon nag ci côté bu baax ndax tey boo nee diine ji wax dëgg yàlla ni nit ñi bëggee diine dana la yéem fi mu ba fi may waxee yow téléphone bi mi ngi sonné ci ñett numéro yëpp sama téléphone bopp di sonné nit ñi bëgg a bokk jotaay bi te buñ fi toogoon ba minuit Cheikh Maodo Makhtar mi mën naa seede ne noonu la auditeurs yi di continuer di woote continuer di déglu fan la problème bi nekk ba li ñu war a dund kon dunduñ ko ndax nit ñi noonu lañ bëggee diine waxkati diine yi bari waaye ba léegi ñiy xool wàllu société ak ni muy doxee jàpp ne des na fan la problème bi nekk bi nekk na fu Euh, maanaam modernité bi. Mm-hmm. ak ak diine bi. Mm-hmm. maanaam diine bi nit yi bugg nañ ko. Mm-hmm. ndaxte ndaxte euh, yàlla moom kay mënu ko bañ. nit yi bëgg nañ ko mais doxal diine bi moo moo moo yombulul moo yombul ndaxte incidence yi maanaam ñi nga xam ni diine bi gënul leen diine bi saxalu leen diine bi euh, développement diine bi arrangé wu leen ñooñu ñoo tax doxal diine bi difficile au Sénégal waaye nit yi bëgg nañ diine bi. buñ leen ko yombalee gi ñu gën ko xam maa ngi dellu ci affaire ci waxu arabe bi sànq nit yi bu ñu fekkee dugal na arabe bi ci enseignement général bi bu boo kuy wax arabe mënu ko comprendre comme ni ngay làkkee wolof comme ni ngay làkkee français comme ni ngay làkkee anglais day tax ñu gën a Sénégal maanaam doy waax yu bari dina wàññeeku ndaxte bu fekkee yaa ngi julli yow saar bu ngay bu ngay tari xam nga lu muy wax bokkul ak koo xam ne suy julli saar bu muy tari xamul lu muy wax maanaam jeexital bi mu am ci biir nit ki. Mhm. mi ngi mi ngi c'est en fonction de dégg-dégg bi mu am ci diine bi. Mhm. Mhm. am na solo jërëjëf jërëjëf soxna si ci njàngat moomu Cheikh Mamadou Makhtar yow laaj boobu man njàngat nga ci def. waaw njàngat mi de mooy sëñ Mbàkke eh, xanaa ci jëfandikoo jumtukaay yi nga xam ne moom moo ñu wër yéen ay oustaz ngeen ay borom xam-xam ngeen gis nga ni ngeen dominer li nga xam ne mooy technologie de l'information et de la communication ni yaa ngi toog yore technique bi. Mhm. te feggoog sa technicien. Mhm. mu ngi def leneen itam ci mbiru liggéey bi. Mhm. waaye yow nitu daara nga fexe nga ba maîtriser ko. maanaam nit ñi aussi borom kër yi li ngeen leen di wax ci wàllu yàlla nee na yonent bi nee na. dañoo war bu ñu ko jëlee. daal di ko dem ni ko soxna si doon waxee jëfandikoo. parce que problème bi yëpp mooy application. dëgg la application bi te yàlla nag moom moom garanti na moom bés penc kenn du ne moom jotu. jotu ma ñëpp danañ ci jot. jot jotuma woon moom. amul wallaay ndeysaan itam moom du nekk naan laan waaw yore hmm. liste déedéet. Hmm. iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiban xam ne yaay àtte sa bopp. yaay sa bopp allahu akbar waaw ndax nii nii nii nga déedéet. Hmm. loolu suñu borom waxut loolu. nee yow yaa koy jàngal sa bopp. nga nekk sa comptable bopp. def say compte naan reddition des comptes. foofu xam nga ñaari baatu iqra bi nga wax daf maa fàttali li soxna si ubbee woon jotaay bi ci suba. wax ne yàlla li mu wax mooy jàngal iqra fii ci àdduna ëllëg yomal xiyaam nga ñëwaat mun la jàngal noonu lay def kon fii mooy jàngal fee mun la taril taril <laughs> fii daal dama ne la woon jàngal ba doxal léegi jàng nga ba doxal fii nag ñëw nga hmm. léegi li nga doon doxal jàngaat ku ma dégg waaw nga xam ne ni tey àtte boppam mooy àtte boppam moo naan ko tëj ma man fi mu ne kaso kaso laa mérito tëj ma ah. wala mu jàng ba noppi samp xilam daw jëm àjjana ah. xam ne yiw la mérito dëgg la est-ce que loolu kiimaan la de ndax antaqana allahu allazi antaqa kulla shay'in la la ko cëri mi ngoog mi ngoog ndeysaan kon loolu application boobu nag ci ñoo war a appliquer mhm. xam nee naa la sànq bi ma ñëw dama déglu nga wax lu am solo mooy xadis mhm. bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax am na lumb boo xam ne mu mhm. nit dëgg la bu jagee lépp lépp jag bu jagul dara du jag wallaay mooy xol xol li tax ma wax ko mooy xol mooy centre bii di liggéey loo yeneen cër nag bés tari googu nga wax léegi ci aaya bi ma waxoon sànq euh, cër yi la ñuy laaj maanaam seenu euh, seenuk euh, cër yi jëf yi nga xam ne ñu ngi ko doon def ci àdduna bu ñu leen di tariloo dañ leen koy laaj cër yooyu. ndeysaan waaw kon nag. tubaarkal loolu am na solo lool sëñ Mbacke. am na solo am na solo jërëjëf Cheikh Mamadou Makhtar jërëjëf mbokk yi ñuy bàyyi xel soxna Nafisatu madame Ba jërëjëf ñoo ngi koy jaajafal baax a baax madame Ba kon yow laa jox kàddu gi nga ñëw ci minute yu mujj yi bu ko defee mu nekk tàggatoo bi waaye itam nekk li nga xamante ne moom ngay tënk ci waxtaan wi nga xam ne moom lañu doon war waxtaane jombut nga am loo bëggoon a wax lool te boo ko waxee mu am njariñ te suñu gàtt xel ak suñu néew xam-xam tax jotuñ la koo laaj bu ko defee nga ñëw ci daaneele ko bu ko defee ñu daal tàggatoo waale bismillah waaw wax bu rafet rek moo tax euh, oustaz Mbacke ngay wax néew xam néew xam-xam ndaxte <laughs> xam-xam defe naa fi ci yéen la fekkee baax waaw euh, cheikh cheikh bi dafa ni euh, lumb bi nga doon wax mhm. daf ñu jege mhm. muy xol mhm. yàlla si doomu aadama xol njëkk a sàkk cër bu njëkk a sàkk may xol maanaam xol xol moo tax yeneen yeneen cër yi nekk moo ëpp donc xol mooy le début mooy la fin wax nañ sànq waxu xam-xam wax nañ sànq waxu gëm-gëm ubbee nañ ko iqra cheikh bi teggee nañ ko iqra mhm. dama ko teg rek nii yàlla bu ne iqra jàngal xamal xamal ma may kan mhm. xam yokk see xam-xam bu mu bu muy termine aaya bi defe nii mhm. bul ma sori te demee jaamu waaw donc yàlla bu mu la waxee li nga wax a def xamal ni que moom moo moom moom moo demal nga sàkku ji xam-xam dama nga xamal ni que ma maay sa borom xamal ni que da nga war a jàng bu jàng ba naagu bul am ba weddi ma bu topp ñi nga xam ni gëmuñu ma mhm. xool ma ñoon lu ñu mujjee mhm. mu terminé ak yow nee na la day julli mhm. te bu ma te bu ma sori bi ñu tonkoo ci loolu rek ci benn ci benn saar boobu rek suñ ko doon doxale tuuti rek xëy na yàlla dañu gën a am yërmande ci am na solo jërëjëf jërëjëf bég nañ lool ci euh, wuy si gi nga ñu wuy si ci jotaay bi euh, ñoo ngi lay sant bu baax di la jaajëfal ci kàddu groupe Sud Communication gépp ci participation bi nga xam ne indi nga ko ci jotaay bi ñuy amal ci koor gi di An-Nour ak euh, waxin wi ak yar bi mu àndal ak li mu làmb ci xam-xam yépp jëm ci wàllu yar ak melokaanu nit nit moom nga xam ne bu baaxee rek société bépp baax waaye bu nit sànkoo rek société bépp daal di jëm ci giraawaali goo xamante ne la muy jur du baax Cheikh Mouhamadoul Makhtar moom la ñuy dalal kon mu ñëw moom itam ci ay minitam yu mujj ci tàggutoo nga xam ne moom lay indi ci nga xamante ne moom it ñu ngi ko doon waxtaane en tant que nitu daara en tant que itam ku ñam ci yaru mag ñi ba xam li muy saf muy feeñ ci ay kàddoom ndax li muy wax lépp lu mu ci wax rek mën nañ koo layal ci ayab alquran wala ñu layal ko ci njàngale mag ñi te moo ne de xëyut ci loolu ci beneen tool lay xëy di yëngatu ci leneen kon loolu day wane ne ñu mel noonu buñ baree ci réew mi xel yi dal ndax danañ am beneen force bu nekk seen ginnaaw boo xam ne buñ wéetee ba yëgoon ne bëgg na maa def dara loo xam ne tooñ na société bi ñu yëg ne lii kat sama ngor mayu ko sama diine mayu ko sama judd mayu ma ko kilifa yi ma jox ay responsabilité waruñoo toog dégg ma ci safaan bi loolu day nekk loo xamante ne lu jara jëmale kanam la ñoo ngi koy ñaanal baax tey rafet lu jàppale jotaay bi Cheikh Mamadou Makhtar yow la ñuy jox nga ñëw ci sa kàddu yu mujj waaw xanaa di la gërëm bu baax a baax di la sant itam mm-hmm. di ñaanal rajo bi yokkute bu baax a baax amiin euh, di fàttali mbokk julli di rek ne suñ boroom waxoon na loolu yëpp ba muy wax kuntum xayra ummatin mm-hmm. uxrijat linnaas taamuruuna bilmaaruf wa tanhawna anil munkar mm-hmm. wa tuminuuna billah walaw aamana ahlul kitaab mm-hmm. la kaana xayran lahum minhum minhum almuminin wa aksaruhum alfasiquun wallaay ndeysaan aaya boobu suñ mbàkkee yaakaar naa bëri na lool lu ngeen koy firi dëgg la te comme que suñ boroom waxoon nañ loolu waaye nag bu fekkee ne ñu ngi digle lu baax di tere lu bon. Mhm. ci la ñuy nekk ñi nga xam ne ñoo gën. dëgg la mais su fekkee ne ñu ngi woor te wu ñu lu baax. Mhm. terewuñu lu bon. Mhm. jëfuñu ko. moytu ndiku wuñu jëf ju ñaaw. nekkuñu xayra umman dëgg la kon li ma mën a wax daal mooy ne nañu góor góorgóorlu ba li nga xam ne garantie yi nga xam ne ñun jëloon nañ ko seen suñu kanam suñu borom. bés penc ma bu ñu woowee ñun ñëpp ñu fekkaat ko suñu biir. di ziar waa Sénégal di ñaanal kilifa yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi. yàlla na leen seen borom sàmm ba li nga xam ne maanaam bëgg nañ ko ci lii nga xam ne moo jëm ci wàllu askan wi suñu borom may leen ñu yeggali ko oustaz yi nga xam ne ñoo fi nekk itam ñu ay sëriñu daara muy imaam alin Sall ak coono yi ngeen di daj ak ñoom sëriñ Maodo Faye ak ñoom Alioune mbay yéen ñëpp coono ji ngeen di daj ngir diine taxaw yàlla leen suñu borom dolli dolli rajo bi dolli auditeurs yi mm. may Sénégal jam amin jërëjëf kontaan nañ si Ahmadul Maxtaar jërëjëf jërëjëf soxna Nafisatu eh, Ndiaye eh, madam Ba ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal it Cheikh Mamadou Maxtaar Ka di jaajëfal bu baax a baax eh, waa Gét Ardo yëpp di ñaanal xalifa ba alxaaji Mohamad Aysata Ba ak alaaji Ajuma mi nga xam ne moo yor kàddoom ak njaboot gi yëpp di jaajëfal bu baax a baax waa association Misbahul Huda yëpp di gëstukat yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi tey toog ci seen i bureau yor message boo xam ne mën naa defar pénc mi gars yi di ko làkk ci arab ñu mën koo làkk ci weneen làkk ndax njàng mépp leen rek ay soloom mooy mu doon bismi rabbik bu doon dañ koo jàng ci turu yàlla rek bu dee anglais baax na bu dee allemand euh, bu dee allemand baax na bu dee espagnol baax na bu dee arabe nag gënati na waaye yooyu yëpp rek euh, na fexe bay xelli lu baax loo xamante ne nit mën na cee jariñoo su ko defee penc mi daal tegu ci yoon mbokk yi bàyyi xel an nuur jaajëfal nañ leen kon bu baax a baax ñaanal leen suñ borom subhaanahu wa nangul ñu suñ koor te defal ñu njéggal ñoo ngi leen di baalu àq ci sama kàddu man ak ñi ma dalaloon lu jub ci waxtu yëpp rek ci baaxu suñ borom la jube lu ci dëng nag ñëw toog partager yéen lépp loo xam ne ak njub bañ bokk man cee jariñu ñoo ngi leen di sant te leen gërëm di leen jaajëfal ci kanam tuuti waa rédaction bi la bàyyee jotaay bi soxna Issa Niang ñëw yaatal la leen xibaar ci français ànd ak Aline Badara Socé ak yi nga xam ne moo ci aju mbokk yi jox nañ leen daje kon bu 16h jotee incha ci seen jotaay boobu di xamtu lu jiitu loolu 14 Aline Mbaye dana ñëw ak ci jaar jaar yonent xamtu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu fi amaanillah